Euh, noo ngi leen di euh, siyaarewaat bu baax a baax ak euh, foo leen manti rek nekk moo xam ci biir réew mi ak ci biti réew waaye itam di ñu seetaane ci fi nga xam ne moo di ci seen télé waaye wala seen téléphone yi Facebook wala YouTube foo ñi rek mën a seetaane noo ngi leen di béggee bu baax a baax baax a baax tey ñu ngi waat fii nga xam ne nag moo di Banyanka ci dëkk bu sell bi ni ki ni ko Eye Africa TV defee ci rek ba gàmm ki dooree ak léegi ñoo ngi fii nga xam ne nag moo ci Banyanka daal di indi suñu matériel bi yëpp ngir rek fexe yéen ñi nga xam ne fi ngeen nekk dafa rek daal di euh, sori wala sax yéen ngi amoon yéene lool ngir ñëw fi nga xam ne moo di bàyyi ñàkk teewee wala dund li nga xam ne moo di gàmm gi te it nag am ay gàllankoor ba mënu leen a ñëw euh, ngir rek ñu wan leen lépp loo xam ne mi ngi fii xew fii yéen tamit ngeen mën koo dundu live te dara du leen ci rek daal di ump euh, ñi ngi waajal li nga xam ne nag moo di Euh, lii di euh, cérémonie officielle bi ñu ngi koy daal di waajal te nag euh, ci kanam dinañ leen ko digtal ay waxtaan ay kaddu yu nar a am solo nar fee jib ci sëriñ bi ak it nag ñeneen ci ñi nga xam ne ñooy bokk jotaay bi ak gan yi nga xam ne ñoo war a ñëw loolu dinañ ko indi ci kanam waaye laata loolu nag Africa TV ni ki ni mu koy defee rek ñi ngi amal benn plateau boo xam ne dañuy waxtaanaale li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi ak itam taaral bi nga xam ne bis bi taaral nañu ko ak ci cérémonie officielle bi loolu itam dinañ ko rek daal di euh, waxtaanee boo leen xoolee fu ñu toog nii la nag euh, ci jataay bu yanj bi la ngeen xam ni euh, du man kese maa fi rek nekk àndaat nañu fi ak yeneen yi ñi nga xam ne ay borom muy xam-xam lañ ñu nar waxtaanee li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi waa itam waxtaanee dëxëñ ci li nga xam ne mooy jàmm bi nga xam ne mooy moom la ñu jagleel thème ren bi lee nga xam ne dañ ko nar a waxtaanee ci li nga xam ne mooy gàmm gi te nga xam ne jàmm ku tudd rek nga xam ni mooy lu gën ndax nag boo xoolee fépp foo xam ne jàmm amu fa rek euh, li nga xam ne moo di nooteel du fa rek daal di jugee kon tey jilee bu nga xamee ni ci gàmmu ren jile ñu ngi daal di jël li jëm ci wàllu li nga xam ne euh, moo di Euh, thème bi jagleel ko li nga xam ne moo di jàmm kon lu ama am solo la laataa may dugg nag ci nuyu ñi nga xam ne ñooy gan yu ñu dalal euh, ci euh, plateau bile damay daal di am ki nga xam ne nag mooy sama naataango di Massiré Diop moom itam mu daal di nuyoo gis ngeen ni ñu ko defee ay Africa TV bàyyiwul dara fa nga xam ne mooy Wélingara lépp la jëlee foofu daal di ko indi fi nga xam ne moo di Banyak ngir fexe nag lépp daal di jaar ci yoon ñu mën a wane lépp Massiré su ko defee ñu nuyu la ndokkeel la ci bisi gàmmu gàmmu gile di la ci ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp di ko sàkku itam ci yow waaye bàyyi la nga nuyoog euh, bokk yi ñuy seetaan ci Africa TV ak fu waay mënti nekk. jërëjëf Garmi ma la asalaamaaleykum ne asalaamaaleykum askan wi ñi nga xam ne ñu ngi ñooy toppa fii si Africa TV jamono ji comme ni ko waxee ñu ngi fii nii si dëkk bu sell bi di Banyanka ñu fas yéene nag eh, indil leen lépp lu nga xam ne rek eh, dina xewee eh, tey jii nii waaye nag ñuy ndokkeel tamit fépp jullit si biir réew mi ak bitim réew fu jullit nekk ci àdduna bi rek ñu ngi lay ndokkeel si bés bu màgg bi comme ni nga ko waxee rek dinañ ci waxtaani waxtaan yu am solo ndik tey mu nekk bés bu nga xam ne nag bés bu nga xam ne nag bés bu am solo la si si ñun jullit ñi moo tax nag saa su ne rek dañuy sant yàlla buur bi bu baax a baax bi ñu mayee nag ñu fekkee ko ak wér ak euh, tal euh, ba tax na rek ñuy delluwaat rek di leen wax ne asalaamaaleykum euh, di nuyu nag suñ gan yi nga xam ne ñu ngi leen am fii si plateforme bi képp ku nga xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog Eye Africa TV ñu fas inil na indal waxtaan bi ñu leen amal tey jërëjëf jaar bi jërëjëf jërëjëf ma am na solo lool su ko defee rek ñu daal di it uh, njëkkee suñu wet wàllu ndeyjoor kooku moom Eye uh, Africa TV la bokk muy Serigne Moustapha Cissé uh, noo ngi koy nuyu bu baax a baax Serigne Moustapha di la dalalaat si sa kër waaye itam di la dalal tey jii ci plateforme bi nga xam ne ñu ngi ko amal fii ci dëkk bu sell bi la ci tànt bu sell bi di Banyanka ñu bàyyi la yow it nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan Eye Africa TV. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu an qutbil maktum sahibul fuyodati rabbani wa radiyallahu an kulli man tabi'a sunnatahu wa amila biha ila yawmiddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, Mohamed mbay ñu ngi lay nuyu garmi di nuyu Soxna Masiré di nuyu sunu sëriñ Cheikh Ibrahima Touré di nuyu waa Madinatul Anwar yëpp waaye di nuyu ay Africa TV ak ñu fi liggéey Lamine mi nga xam ne mooy borom kër gi ak ñu fi liggéey yëpp di santaat sunu borom subhanahu wa taala di ko dolli ci liñ ko doon sant fas yéene ñëwaat fii si kër gi waxtaan ak bokki julli incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha nuyoo yi am na solo euh, kàddu yi am na it solo su ko defee rek ñu jox euh, sëriñ Ibrahima euh, Touré moom itam mu daal di nuyoo laata ñuy dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan wi sëñ Ibrahima noo ngi lay nuyu di la dalal ci kër gi di Eye Africa TV tey ji ci bisu gàmmu gi ñu nekk ci jataay bu am solo waaye itam nekk ci tànt bu am solo nu nuyu la bàyyi la nga nuyoo ak bokk yi nga xam ne noo di ñooy seetaan Eye Africa TV. awusu billaahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allasi jaxala suluuka tariqatal anal wilayati wa naskuruhu jalla wa ala wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin xaatibi nabiina wa imaamul mursaliin wa ala warisi sirrihi qutbul maktum wa kansul mahmum abaa abasi sayxuna ahmad tijaani wa xalifatil akbar sayyiqinaa wa wasilanaa wa murabbinaa mawlaanaa Cheikh Alaaji Sayid asadallahu nuuruhu fi hadratil eh, xaybiya mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi sant yàlla subhaanahu wa ba julli ci sang bi sallallahu alayhi wa salaam Alaaji Sayid yal yàlla yokk ko fa mu tëdd ca barsàq ñu ngi nuyu alal xadara xadara bi yëpp di ko dooree ci ca kaw ba ci suuf ndax ku ndaw nekkut fi ku tuuti nekku fi waaye ñëpp ñu ngi leen di jox nuyu bi waaye ñu jël nuyu bi jéppal ko saydaa bi ñu toogal ni dend ak ñun ak ki topp ci kow nga xam ne moo ñuy animé seex bi ñu ngi lay siyaare bu baax nga jégal ma ci tur bi nag waroon naa koy tudd waaye maa ngi jégal mbay la de sëñ mbay waaw mbay nga sant xam naa sant wee kéemaan Cheikh euh, Oustaz Cissé ñu ngi koy siyaare bu baax moom den dëkk nañu sëñ Moustapha waaye den nañu suñu kilifa yi suñu kanam nga xam ne ñoom ñooy animé lépp ñoom la mooy ku mel ne Cheikh Baye Alhaji euh, Daouda Thiam ak mboolem ñu topp ci kawam ñëpp den nañu kilifa bi di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ma ànd ak gu sax dàkk nag da tënk kàddu yi rek da wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, jërëjëf maa gis nga euh, gan yi nuyoo bu am solo bi nga xamee ni euh, daal di nañ ko nuyoo su ko defee ñu daal di sóobu ci li nga xam ne moo di ci mooy waxtaan wi ndax cérémonie officielle bi léegi mu tàmbali léegi tey kilifa yi daal di toog tàmbali nag li nga xam ne mooy waxtaan wi waaye laata loolu rek ci waxtu wu xat wi nga xamee ni am nañ ko fi ak suñu ñaari gan yi le ñu daal di waxtaanaale li nga xam ne moo di ren cérémonie officielle bi ñu war a def waaye itam lan lañ war a mën a xaar ci sëriñ bi kaddu yi nga xam ne daa ko fi yëkkati su ko defee damay njëkkee ci sëñ Moustapha ma balaa ma lay bàyyee ak euh, sëriñ Ibrahima Touré euh, sëñ Moustapha tey jii ñi nga xam ne ñu li nga xam mooy euh, cérémonie officielle bi mu doon loo xam ne lu nar la te itam kàddu yu am fi daal di jib waaye itam nas la ñu nga xam ñu ngi ko war a njortu ci kàddu yi nga xam ne kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamed Bassir ak yeneen i kilifa daa ñu ko fi daal yëkkati ak itam fan la nar a mën a jëmee li nga xam ne mooy àddina du ma wax rek taalibe yi waaye àddina laay mën a wax ndax li nga xam ne moo di topic bi maanaam thème gàmmu ren bi muy jàmm te loolu dinañ ci dikk ci kanam waaye nga xam ne moom lañ jël mu doon lu am am solo waaye lan lañ mën a xaar ci li nga xam ne mooy sang bu tedd boobule euh, di euh, Cheikh Mouhamad euh, Bassir nga xam ne nar na ko joxe tey ci cérémonie bi laata sax ñu dem ci biir gàmmu gi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi alamin sëñ Mohamed Niang laaj nga laaj boo xam ne am na solo ci kilifa gi lan lañ koy war a xaare ci ay kàddum ci bis bu tedd bii nga xam ne li ñu bëgg a waxtaane li ci ëpp yépp mu ngi tënku ci jàmm baatab asalaam muy jàmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf noon laata tadxulu jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahaabu awala addalakum ala shay'in isa faaltumuhu tahababtum ñi ne ko ankañ mu ne afso salaamun baynakum doo leen mën a dugg aljanna te bëggantewu leen waaye doo leen mën a buggante te soppantewu leen mu ne ndax duma leen tegtal loo xam ne soo leen ko defee da ngeen bëggante soppante ndax ngeen mën a dugg aljanna ñu ne ahankañ mu ne na ngeen siiwal jàmm ci seen biir kon jàmm lu am solo la bokk na si jàmm nag li nga xam ne moom moo koy moo sabab mooy kenn ku nekk fexe jëf lu baax jëmee ci mbokk jullitam wax lu baax jëmee ci mbokk jullitam sang bu tedd bi bu ñëwee fiñ koy aar mooy jëfam ak kàddum dañoo ànd kom nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàngalee alquran ne wa qulu naasi xusnan dee leen wax jëmee si nit ñi loo xam ne lu rafet lay doon dee leen ne wa xayraat dee leen di def lu baax ñu nekk ci bis boo xam ne ñu ngay màggal ñu ngay waajal màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wax yu bare bare bari am ci yoo xam ne uute na am na ñoo xam ne ñi koy def ñu ngi leen di wax lu nekk ndax ñoom dañooy màggal juddu yonent bi ñu ne baaxul waruñu koy def bidaa la ñii ne bu rafet amul te loolu buñ ci waxtaanee te dégluwante bu ci déggoo amee dina yokk jàmm ci suñ biir waaye su fekkee ne ku nekk da nga jàpp ci li nga jàpp dégluwuloo sa morom kenn ku ne téye si lu nga téye déggoo mën naa bañ a am si biir islaam te bu déggoo amul jàmm ni ñu ko bëggee du ñu ko ko mën a amee moo tax ba ñi nga xam ne dañooy dàq gàmmo ne ñi koy def li ñuy def baaxul am ñu jéggi dayoo ba ne ñi nga xam ne sax ñu lekk yi ñu ciy def dafa xaraam xam nga loolu bu fekkee ne say kilifaa nga koy def nga koy def nga dégg kàddu googu ci keneen boo yaatuwul dëgg lool sa diggante yaa kooku pour cofeel dox fa dina jafe lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa neexoon na jullibatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha yàlla dina tourné xol xol bugg koo xam ne rafetal na jëmee ci moom waaye wa bux di xalaa man aza ilayha xol dina bañit koo xam ne dafa ñaawal jëmee ci moom pour jàmm am ku nekk na nga fexe wax lu rafet jëmale ci sa mbokki jullit kooku moom fexe wax lu rafet jëmee ci yow gannaaw ki yàlla yónni woon alayhi salaatu wasalaam moo ne jullibatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha kon nañ xam ne ku bëgg doomu aadama yi bëgg la fexe rafetal jëmee ci ñoom ndax sang bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne yaa ngay rafetal di jëmee ci ay nit ñooñee seen xol dina tourner bugg la waaye su fekkee dangay ñaawal jëme ci ñoom seen xol dina tourner daal la bañ bañante bu bari bi nag li ko sabab mooy waxante yu ñaaw yu bari yi ci uutee gis-gis wala uutee dégg-dégg te gàmmoo ma màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom xam-xam yi dañ cee indi ay dalil sukkandiku waay yoo xam ne dafa jaadu pour ñëpp def ko ndax ki nga xam ne ba ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënoon a weddi weddi borom bi subhanahu wa taala ba mu deexee yàlla di ko mbugal waaye wax nañ ne bisu altina bu nekk yàlla dina ko oyofalal mbugalam ndeg lan bég gu benn yoon ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa kooku mooy Abu Lahab dañ koy oyofalal mbugalam te kooku dafa dee ci bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu koy mbugal waaye bisu juddu yonent bi bu ñëwee dañ koy oyofalal mbugalam borom xam-xam yi ne borom bi subhaanahu wa ba muy wax ak yonent yàlla Muusa ba ne wa zakirhum bi ayaamillah leen fàttali bisi yàlla yi bisi yàlla yi ñu ne ay xewalam borom xam-xam ne bisi yàlla yooyu bis bi ci gën mooy bisu ñëw ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala del ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun borom bi subhaanahu wa taala ne bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla yi wa bi rahmatihi ak ay yërmandeem fa bi daalika fal yafrahu na ngeen bégee yàlla yi na ngeen bégee yàlla yi borom xam-xam yi ne ngëneelu yàlla kat yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo si jiitu wa kaana fadlullahi alayka azima borom xam-xam dellu ne yërmandeem borom bi subhanahu wa taala moo noon bi wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga nekk yërmande ñeexal mbindeef yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del ne innama ana rahmatun muhdatun man yërmande nekk kado ñeexal leen sëñ Mohamed Mbaye dafa am benn waajoo xam ne dafa ñëwoon fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a ngi toog ñii ne si jàkkam ji mu daldi ñaan ñaan goo xam ne ñaan gu doy waar la daal ne allahuma arham nii warham muhammad wala tarham mahana ahad yàlla yàlla ma yërëm yàlla yàlla na nga yërëm muhammad waaye bu ci teg kenn intu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko laqad hajarta waasian xatal nga lu yaatu rahmati wasia kulli shay'in comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi yërmande aynu rahmati kon kooku bu borom ne nañ bëggee ay xewalam ak yërmandeem wax dëgg yàlla ñëw gum ñëw xewal mën a koy jiitu ndax lépp lu ñuy bégee ci islaam juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la juddoo kon lii su fekkee ne waxtaan am na ci ñu déggoo ci fexe ba ñooñ islaam déggoo ci jàmm dina gën a yaatu lool ndax bis bi bu jotee da nga gis ñuy xutba di ekkati kàddu yoo xam ne doy na waar lool jéemee ko si ñi nga xam ne ñu ngay màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa noon inna xayra kitaabullah wa xayru hadiyi hadiyu muhammada wa charrul umuri muhdisatuha wa kullu bidaatun dalala ñu ne gannaaw yonent bi daf ne kullu bidaatun dalala ñu ne kon benn bidaa baaxul ndax gàmmoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko def ñoom liñ wax sahaaba yi daanuñ ko def ñu ne kon nag képp ku ko defati gannaaw yonent bi li ngay def bidaa la li ngay def duñu ko nangu ndax yonent bi neexoon man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddu kon xam naa ne foofu la ñuy taxawangum ba ci kanam incha allah dañu desaat ci yow ndax tey euh, li nga xam ne moo di euh, officiel cérémonie bi ñu ngi ci xaar kàddu yu yu yu yu yu bari euh, ci sëriñ bi waaye kàddu yu ama am solo ci sëriñ bi ndax officiel cérémonie bi xam nañ dinañ ci yëkkatee ay ci kàddu yoo xam ne ba tey ñu ngi ciy njortu ñu ngi koy njortu sëriñ bi war koo jibal ci kanam tuuti kàddu yooyu ñu ngi ci tamit fu jamono toll ak ndaw ñi te xam nañ sëriñ bi soo ko yàgg a topp yàgg koo déglu ci waxtaanam yu bari duy fàtte ndaw ñi ginnaaw lu bari da ngay gis mu leen di gën a yebaat ci liggéey leen yebaat ci fonk way jur gën leen yebaat ci gën a gëm ki nga xam ne moo di seen borom euh, tey jii ndaw ñooñu nga xam ne euh, réew mi jaxasoo na euh, àdduna jaxasoo na tey dañuy gis ndaw ñi duñu wax ni sax duñu ci bari dañuy dem ba mel ni kuy kuy sànku ci wutum xëy ci muy jaral leen ñuy génn li nga xam ne moo di seen réew yi ñu nekk di dem wutali réewu tugal yi ba ci jaar ci gaal yi ba ci sax faaf ñàkk ci seen bakkan tey ji sëriñ bi nes lañ mën a njortu ci li nga xam ne mooy lu jëm ci ki nga xam ne moo di digganteem ak euh, ndaw ñi ci li nga xam ne mooy kàddu yu mu war a jibal ci officiel cérémonie bile nga xam ne ci kanam tuuti sëriñ bi dina ci teew. jërëjëf sëñ Mohamed Mbaye góor gi ay kàddum incha allah li nga xam ne tey su baaxee adduna bi yëpp baax tege ci yoon muy ndaw ñi ak jigéen ñi ak jàmmi réew mi incha allah dina ci ñëw te dinañ ci dégg loo xam ne dina fees suñu nopp. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am num daan def maolana seydi saïd omar kebe jikko boobu jikkoom la ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa daf daan toog gis koo xam ne déglu na ko déggal na ko jikkoom rafet na mu am lu mu wax ci moom loo xam ne ndaw ñi yépp mbooleem koo xam ne bëgg nga lu baax waxuma la moom kilifa gi waaye kooku rek dina nekk sa roy waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mos a toog waaye yaman ñëw ne ko ñun de sang bi dugg nañ ci diina ji waaye dañu bëggoon nga boole ñe koo xam ne moo ñooy jàngal alquranul karim saaba yi bari nañ waaye ku ne yonent bi daf daan wax ci yow loo xam ne tiitar lay doon ba ilaa yow mi diini nam daan yaree saaba yi maolaana seydi said noonu la daan yaree ay taalibeem maolaana cheikhul bachir seydil bachir al khalifa no foofu la teg tànkam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa oo ku ñëw Abu Hubaydata Amir ibnu Jara na ana Abu Hubaydata mu ne ko maa ngi ni doog dox ndànk jëm ci sang bi sallallahu ci yar ba ak jikko ju rafet ja mu daal di jël loxoom teg ci mbaggam mi ne yéen waa Yaman ki ma leen booleen mu ngi nii moo leen war a jàngal alquran waaye borom jikko la jikko joo xam ne bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñépp dañu bëgg a jikkoo fasangi jikko boobu muy wa ban wax yonent bi téye Abu Ubayda ta teg ko loxom ne li kulli ummatin aminun wa aminu hathihil umma Abu Ubayda ta Amir ibn Jarrah wu nekk am nañ ku ñu óolu waaye ki gën a wóor ci xeet wi mooy Abu Ubayda ta Amir ibn muy loo xam ne ba ilaa diini loolu tiitar la boo xam ne taarix du ko mos a fàtte jikko yooyu laa naa Seydi Saïd moom la def si njabootam gi ba mën nañoo nekk ay moroom waaye su ma xamee ne yow mii bokk taalibe nga suñ bokkee moto bu fekkee ne am naa lu man ñaari paas ma paasaaleel la loolu def na ko si jikkooy ndaw ñi waaye def na ko ci ñu fonk seen mag ñi ndax neexoon na képp koo xam ne fonkuloo sa ndey ak sa baay bul bul ma xam bu ma la xam ndax koo xam ne tooñ nga sa ndey ak sa baay ba ñu mer benn sëriñ mënatul laay ñaanal benn sëriñ mënatul laay defar Maulana Seydi Bachir Al foofu la teg tànkam te incha allah waxuma la mu wax ca waaye bu doxee di ñëw danga xam ne lii programme kaw ak suuf yépp lii la. yonent bi sallallahu alayhi wa ci liggéey bu mu liggéeyoon ci biir sahaaba yi def si ñoom jikko yu màgg te jikko yooyu boo dikkee si biir Naylul Huda daa danga koy gis. Abu Zarinil Xafaari dafa mosoon a def mbir mu rëy. benn waay dafa jote woo ak bàyyi ñaari xale fekk waa ji dafa am tool kee di sàmm i gélémam juróom ñëw jege ko ñu jote mu daldi ko sànni xeer ñu ne xeer wi dal ci bopp bi kooku génn jamono doomi doomi ka dee jiitalee fa waajooju indi ko ci amirul moomin omar ibnu xataab radiyallahu anhu ne ko kii dafa rey sun waajur dañ bëgg nga atteel ñu ko seydna omar laaj waa ji waa ji ne ko ah, dëgg la de noonu la demee de mu ne ko yow kon àtteeb islaam dina dal ci sa kaw waaye ba mu waxee loolu waa ji ah, am naa njaboot gu tuuti goo xam ne day bëggoon naa ku ma garanti ma dem libéré leen alal ji ma am ma jox leen ko ndax suñ ma reyee fii danañ dee ak xiif Seydina Omar ibn Xattaab yëg lu rëy daal dina ko waaye yow xamuñu la ana kan moo lay garanti te ku garanti soo ñëwul liñ ko àtte biñ ko war noon àtte dinañ ko teg si kawam mbooloo mi yëpp na teg ñu ne ana kan moo mën a garanti kii Abu Darin radiyallahu anhu ne man mën naa koy garanti ku yonent bi yaroon la mu yor yeneen jikko yoo xam ne saaba yi ñëpp màgg mu ne mën naa koy garanti Seydina Omar ne ko risque la de su waa ji ñëwul àtte bi ci sa kaw lay dal te dafa rey nit suñ koy àtte dañ dañ koy rey mu ne mën koy garanti waa ji garantu ko abodari garantu ko ñi may ko ñetti fan mu daw dem libéré ji njabootam gi lim amoon yëpp mu bàttale ko dellu ñëwaat ñetti fan ba ñetteeli fan bi jant bi di waaj a so ñëpp tiit neen waa ji door a agsi li ma ci gën a intéressé mooy jikko yi nga xam ne góor gi yaree nañu ko mooy ne ba waa ji ñëwee Seydina Omar ibnu Xattaab fekk jaaxle na lool Abu Zarrin ku màgg la naka lañ ko war a attee ci atte boo xam ne benn waaye leen ko war noon àtte moom moo ko garanti woon kooku ñëwut ñi teg ko ci kawam Seydina Omar ba waa ji ñëwee mu mu daal di féexaat daal di na yow waa ji lan moo tax nga ñëw mu ne ko man dey dama ragal ñi ne matal kóllëre jeex na ci kaw suuf moo tax ma ñëw te fekkee ne dana amit bëgguma mu commencé ci man wax dara def ko dama ragal mu ñu ne jeex na ci kaw suuf te su fekkee na loolu dana amit du dooree ci man Seydina Omar ibn Khattab daal di jooy ne Abu Dharin yow lan moo tax nga garanti kii te bu ñëwutoon dañ lay rey mu ne man de dama ragaloon ñi ne ndimbal jeex na ci kaw suuf waaye loolu suy amit du dooree ci man Seydina Omar daal di jooy mu ne waaye yéen ñaari xale yi lu ngeen wax nag te ñoom dañ noon duñ baal waa ji xale yaa ngee jooy ñoom ñu ne ko lu ngay wax mu ne ñun baalal nañ ko ñu ne lu tax ngeen leen ñu ne ah ñun kat dañ ragal ne njéggal kat balaa ñoo wax ne jeex na ci kaw suuf loolu si amit du dooree si ñun jikko yu rafet yooyu boo ñëwee ci xadaraam naylul huda jikko yooyu yëpp da nga ko fiy gis kon xam naa ne gannaaw kilifa gu tedd gi mu ngi fi incha allah ñu bàyyi emangum foofu ba mu dellu si waat jërëjëf sëñ Moustapha euh, waxtaan wi am na euh, solo lool lool xam naa dinañ ci gën a xuus euh, Massiré gis nga rek ñu war a xaarandi sëriñ bi kilifa gu tedd gi mu nar a ñëw ci fi nga xam ne moo di ci biir tante bi si officiel cérémonie bi ñu nar waxtaan waaye ñu ngi ñu bëri ñu ngi xaar ndax sëriñ bi liñ koy xaar xam naa foo xaar nag dina fa ñëw ba ñëw fu sax weesu sa njortu waaye it du naam ñu ngi koy xaar ci ndaw ñi ñu ngi koy xaar ci thème bi nga xam ne itam moom lañ jël digtale ko wala sax Euh, dëgale ko gàmmu bi nga xam ne mooy gàmmu ren bi muy jàmm ak yu ci bari su ko defee rek dama lay bàyyi ak euh, sëñ Ibrahima laata rek ñuy euh, man may ñëw ak moom dama lay njëkk a bàyyi moom nga ñëw du ñàkk xëy na ci waajtaay geeg ci lu jëm ci li nga xam ne moo di sëriñ bi lu ñuy xaar ci moom du ñàkk am na it ay laaj yoo ko nar a laaj laata rek ñu man it may daal di rek dikk ci moom ma garmi eh, jërëjëf eh, sëñ bi si kàddu yi fi eh, jota ruus xam naa ne comme ni nga ko waxee dinañ ci gën a xuus ndig jàmm moom ku koy wax ren bi déwén du tax mu jeex ndig dañ ko soxla suñ jamono yu nekk nii waaye comme ni nga ko waxee rek ma dal di nuyuwaat suñ papa ji toog fas yéene nag laaj la ndik tey nekk na bés bu nga xam ne bés bu màggal la si ñun jullit ñi ah, tey tamit nekk na bés bu nga xam ne moom ngeen njëkk jël ah, muy cérémonie officielle bi nga xam ne ah, tey ngeen ko njëkka a commencé depuis ba commencé di gàmmu fii nii ci Banyanka naka la idée boobu noonu xalaat boobu naka la ñëwee ak lan ngeen ci nar. tabaarakallaahu ñu ñëwaat benn yoon ànd rek ci jotaay bi soxna si ñu ngi beneen yoon li ñu lay am na solo lool ndax jamono day dox. soo doxee ànd ak moom moo ngi dox soo doxut ànd ak moom jamono ngi dox kon soo bëggee sa mbir dox da dox ànd ak jamono kon jamono bu ñëwee ci doxinam danga war a seeti ñay dox ci jamono boobu ñi nga xam xam ne esprit bi nga àndee ceeg ñoom te gis nañ ne ay Africa bi bokk na ci ñi nga xam ne dimension bi ñu nekk di di doxal ci jamono bi ànd na ak jamono boo xam ne mën nga ko tànnal si àdduna bi yow fu nekk di ko gis te léppay rafet. kon boo leen ñëwee fii war nañu seet plateforme boo xam ne bu am solo la ñu toog ci yéen waxtaan ci yéen boo xam ne dañ koy jël adapté ko ak diina nga xam ne danga ko mën a jëfandikoo ci wàllu islam waaye da ko mën a jëfandikoo ci sa aada ak ci li xam ne mooy su dund yow doomu aadama bi ndaxte li ñuy laaj ci wàllu cheikh bi nga xam ne mooy sunu xalifa ñun ñëpp tey nga xam ne jotaay bi mu toog place bu mu toog place bu mat la waaye ki ko toog ki fa toogit ko mat la kon kooku su fekkee dafa war a ñëw ñuy xalaat nan la war a ñëwee ci programme yoo xam ne war na cee wax ak ndaw ñi am naa yaakaar ne bunt yëpp yi nga xam ne moo gën a am solo ci islaam benn bu mu ci jël rek day yóbbaale des ndax seex bi nekk na nit koo xam ne xam na aduna xam na jamono xam na jamono bi weesu xam na jamono bi waree ñëw xam na jamono bi mu toll ndax li ñu def nii moo ñu ko dàq kon moom wax ak ndaw ñi am na yaakaar ne war a jafe ci moom te nekkal ne koo xam ne am na esprit lool man am na yaakaar ne su ñëwee ji wax ci islaam jël baatu jàmm su ko jëlee ci ndaw ñi ndaw ñi dañ gis seen bopp ci bépp lépp lu ñu war a dund ci àdduna lu ñu war a ne defar ci àddina li leen kanam <coughs> ak lu leen indil jàmm ba ci seen wàllu dund ñu war a am am koom boo xam ne day tax réew mi naat nga xam ne Afrique war naa mën a suqaleku mais rawana gàmbee bi nga xam ne damay wax na ndox mi kese mën naa yor gàmbee ndox kese ndox mi parce que ñun Évian lañ yor boo xam ne waroon nañu mën a traiter sax abi abi yëpp maanaam suñu ndox mi nekk di wër ci adduna bi fu nekk ñii ko jaay mu nekk xaalis boo xam ne ba ñëwee mooy benn bis boo xam ne Gambie yëpp mën nañ ci mën nañ ciy gis seen bopp kon Gambie dara manqué wu fi kon moom bu ñëwee am na yaakaar ne boo waxee ndaw ñi seen diina dana rafet waaye seen seen aada ak seen wàllu culture dañ ko war a mën a defar ci kàddum kon ñu ngi koy xaar ci lu bari nag am na yaakaar ne boo waxee ñoom ci wàllu islam ci wàllu jàmm dañu war a dañu war a mën a deferu su waxee ñoom ci wàllu sabru muñ dañu war a mën a deferu ndax ku muñul doo muuñ moom la olof Njaay di wax te te te bokk na ci ñàkk a mën a muñ jamono bi la xew mooy mu ñuy wax xam ma bay wee lañ ko wax xaw ma yoon yi gannaaw waa baag wee da gis ne ku mën a muñ dëgg doo ci gaaw a sóobu maanaam muñkat du gaaw a dugg ci baay bi ndax li tax ngay siw bu yoon boobu noonu boo boo jëlul muñ jiital ko tuuti rek da nga war a muñ mën a muñ ba li la war a fekk si fekk si la ndax dëgg la tukki baax na waaye nag tukki dafa am yoon boo war a jaar ba mën a tukki mën a am jàmm te ku amul jàmm doo mën a am sa diina su diina du mën a rafet waaye nag alhamdulilah xamee ne maanaam si alaji sa yar nañu ci yar boo xam ne waa ne la ko daal yëpp xamee ne leen yar boobu mooy dal te ko mënul muñ doo dal kon moom wax ak ndaw ñi du jafe ci moom soo ko defee kon dem nañ sax beneen la. fii yàlla doon wax ne udxulu bi salaamin aaminiin wala du noonu dugge leen ci buntu bi nga xam ne fi ngeen fa duggee da ngeen am jàmm ba faw ndax sécurité mi nga mën a xem ci yoonam am jàmm mi nga mën a xem ci sa xel dal nga am nga am confiance ci bopp te nit ba boppam ci boppam koolu kóoluteem óolul boppam doo óolu kenn ku óolul sa bopp doo óolu kenn kon ndaw ñi liñ leen jox muy kurus ak salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah boobu ñu amee war naa mën dalal seen xel ak seen xol ba nga xamee ne day mën a defar seen seen aduna kon ñun lu ñu amee suñ ko toppatooyee surtout ndaw ñi yore donte bareeguñu jiwu la boo xam ne war naa man a daj gàmbee yëpp fenn fu ci nekk ndaw li ndaw lu nekk fa nga nekk rek nga fexe ci environnement ba nga toog fa nga toog ak li la wër nga fexe ba defar ko ba nga xam ne yaay nekk ci ci ci sayit boobu noonu ci diwaan ba nga nekk kon mënoon naa si Alaaji Seydi bàyyi na fi jiwu boo xam ne war naa mën a sawee gàmbe yëpp suñu xalifa bii war naa mën a sawee gàmbe yëpp te de muy am sax incha allah kon moom su jëlee kàddu am na yaakaar ne tomb bu mu indi dana mën a dana mën a defar lépp te yaakaar naa ne tomb bu mu indi ci tomb yi ñu ko soxlaa yi ñu koy xaaree wax naa ko léegi mën a jàmm wala wàllu muñ wala nangoo liggéey wala nangoo fonk sa wéyjur la dégg nga yërmande lu mu ci indi rek gëm naa ne suñ ko su ko jëlee euh, bu ci paree rek dañ gis suñ bopp ci bépp fànn boo xam ne islam da ko soxlawoon ci ñun dañ ko gisaale parce que matee na ko kon fa tabaarakallaahu loolu yëpp ñu ngi ko ci xaar te am na baax ne loolu mooy am ñu wax ne kon ñu ngi am kontante waaye ñu waxaat ne rek kon nañ gën a takkaayu te plateforme bi ñu def ren nii am na yaakaar ne bu ñu ko fekkee ak jàmm muy fekkaan ñu fi buñ dellusee fii ñu ñu gën a mën a wax loolu gën ñu ko mën a matee dañ fi teewaat continuer yéen ci liggéey boobu kon dañ gis na kon ñun yaa jàpp ne lii tànki avance kanam rek la ñuy wax amul tànki gannaaw dañ ñaanal xalifa bi fa mu nekk ca xay bu ba mu nekk yàlla yokk fa leeram yàlla taas ñu ci barkeem fa tabaarakallaahu ñu delloo la kàddu gi bu fekkee ne mën nañu dem ñu dem salaamaaleykum wa rahmatullah waaw balaa ma laa bàyyi rek bëgga naa ñu gën a xuus tamit si benn tey jàmm ji comme que jàmm ji mooy euh, temi euh, gàmmu ren bi euh, nit ki naka lay mën a def bi am jàmm moom si boppam balaa mooy am jàmm ak keneen moromi doomi aadamaam macha allah tabaarakallaahu sayda laaj nga mu am solo mooy nit nag mooy def ba am jàmm balaa mooy jëm li ñuy jàmm diggante moom ak keneen gis nga yàlla bi muy bind nit da koy bind ci ci ci monde maanaam doomu aadama bu nekk kan su monde nga doomu maanaam li ay adduna bi yëpp moo tax nit bi ko yàlla bindee jox ko lu ñuy wax xol xol dafa toog toogaay yi moom mooy président léegi nag jir ciri ci des yëpp ñoom dañu dañu ànd ak président bi te mooy mooy xol bi xol boobu nag dafa am loo xam ne moo ko mën a dimbale parce que président bi ñu ko faloon te amul li nga xam ne mooy conseil ñu koy dimbale di ko xelal même suy def discours sax discours bi suñ ko bindee dafa am ñu koy war a xool seet ko ba xam ndax discours bi jaar na wala jaarul yoon li ci kii ñu seppe ko ne ko non du nii nii la parce que moom xelam bi dooyut donte moom na jox réew ba xelam mi kese doyut waa réew mi rek loolu nag yàlla yàlla dafa def ci doomu adama xool mu nekk buur waaye xel xel moom moo ko war a dimbale doomu aadama xel mi jegee rek léppam day baax kon nit balaa moo mën a jagal addinaam dalee ko ci boppam foofu mu defar xel mi ak xol bi moo tax naa si alaaji Seydi ba mu balam lay defar sa xol bi laa njëkk a raxas ba mu set tijji xel mi moo tax bu lay wàccee sax xel li ñuy tijji waaye bu ñu lay defar bu ñu la joxee tarbiya ngay tarbiya ak salaatu yi ngay dóor yëpp salaatu yi pour xol bi lay defer salaatu ala bi ak laa ilaaha illallaah yi xol bi lay defar waaye tijji gi ñu la tijji ci yàlla nag ci ngay defaree sax xel mi moo waral bu ñu la wàccee sax jëmm ji day yëg ne liñ def ci xel mi rëy na ba ni mu liggéey ci yàlla ci saat àll bii da koy fàtte su ko defee nga tayal ngay xelaat naan waaw ndeke man li ma fi nekk yëpp man ndeke duhuma dara waaye ñàkk doon dara gi ñàkk doon dara yëpp waaye ndeke dara nga ci nga door a xam sa bopp door a mën a xam keneen soo xamee sa bopp respecté sa bopp rek da nga respecté keneen ndax cir boo xam ne soxla woo ko ku la ko jox boo xamee sa bopp doo ko nangoo jox keneen nga soxla. toujours moom ngaa jox keneen moo tax yàlla waxoon ne yónent bi sallallahu kon moom wax ne eh, doomu aadama ki yeewu al ki alkayisu man daana nafsuhu mu ne ki yeewu dëgg mooy ki wàccee sa bopp wàccee sa bopp mooy cër boobu moom mu neex lool nga bañ koo jël nga jébbal ko sa mbokkam jullit wala sa mbokkam dëkkandoo gis nga jullit ci boppam partement rawut nga nekk sa mbokki dëkkandoo jullit yi nga naan leen ñii ci mbokk jullit leen dama leen di jox cër déedéet ki nekkul jullit ko nga war a njëkk a jox cër ko nga war a njëkk a respecte dafa am sama benn xarit boo xam ne ndeysaan euh, ci beneen diine lay dund moo tànn sama xaritu ak moom moo ma topp ca xarit gi ba xarit gi dëggu te du jullit damaa gis 4 heures du matin daay jóg de taal téléphone am de connecté wu ma ne ko yow heure bi ngaa jot pour heure boobu ngay connecté ndax da nga doon nelaw mu ne man 4 heures fu mu jotee yeewu naa 10 heures fekk tëdd na mu nga gàmbee gi te 10 heures tëdd na bu yàgg day a tëdd. teel a jóg suy wax ak yow day ñaan ba lu moo ma xam ne kii nekkul julli mën na koo xam si moom kon loolu te man lu mu baax baax mu yéem ma man sama mbaax man moom da ko yéem waaw man damay wax na ma yow dangaa baax da ngaa baax man damay xool ba mu yàgg man ne waaw kii mbax gi ma wax ci man fan na ne ci man jaaxal na ma parce que man li ma gis ci moom man gisuma ko sama bopp kon noonu la julit war a mel ak ku nekkul julit waxuma la julit ak morom waxuma la taaliba ma nelil hudaa ak morom comme taaliba nelil hudaa kon taaliba nelil hudaa warul yor mukk mbokkam taalibeem soxla ko muy muy muy fanaanti ma warul mën a nekk léppam da ko war a joxe kon nag ñi ngi wax ne dund gi balaa mu mën a neex da ngay nangu ne yaw ab jaam nga da ngay nangu ne yow doo mën a tooñ sa bopp kon bul nangoo tooñ sa morom su ko defee réew mi day am jàmm adduna bi yëpp am jàmm soxna si jàmm daal dalee ko ci sa bopp balaa nga dem jëkkanen fa tabaarakallaahu ñu ngi lay delloo kàddu gi jërëjëf macha allah loolu am na solo euh, Garmi ma delloo la kàddu damay des ak moom balaa may ñëw si sëñ Moustapha ndax sëñ Moustapha bëgg naa ñëw ak moom ci euh, lan moom euh, jàmm bi nga xam ne tey mooy topic bi ngir moom mu gën cee dugg waaye dama bëgg a dellu suwaat si sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima man laaj bi mooy tey jii gis nañu ne gàmmu gi amul lenn loo xam ne ñu ngi ko ci doon séentu loo xam ne manqué na du ci liggéey bi du ci wàccaay gi du ci bagage yu fi doon ñëw du ci nag yu ñu fi doon li nga xam ne mooy nañ ko wax sa tëral ak ci yeneen i mbir yoo xam ne lépp loo xam ne mu ngi doon am ci gàmmu gi ci ay at ren jii gis nañ ko bu yokkul dara wàññiku ci tey nag ñu xam ne Mawlana Saïd euh, Kébé moom mi nga xam ne lépp moo ko waral euh, nekku fi ci ci ci euh, zaay euh, ñu nga xam ne nag bii mooy njëlbeenu gàmmu te moom mi nga xam ne moo sooke lii moo wootee lii ba ñëpp wuyu ci ko nekku fi te jii ban jàngat nga ci am sëñ Ibrahima teewul nag liggéey bi yëpp dox na lépp dem na te xam nañ ni fa mu nekk moom moo ko téye waaye itam xëy na ñun ñi nga xam ne suñ amuñu baatin euh, dañu naan moom nekku fi rek nekku fi euh, waaye gis nañ lépp dox na ñu bëgg wax nga indil ñu ci jàngat laata may ñëw ci euh, sang bi di sëñ Moustapha. waaw tabaarakallaahu sëñ Mohamed Mbaye jàngat bi jafewul de man bi may ñëw ba ñàkk ni Madinatul Anwar mooy keroog bu ñuy tëj burda bi laa doon si ci guddi waaye bi ma bi ma fi ñëwee bi burda bi jeexee balaa ma dem kër ga xam naa ne gàmm gi am na lu fi yokk loo xam ne amutoon ci at loolu gis naa ko bu baax sax. gis naa ko ci bépp fànn nag gis naa fa ndaw ñoo xam ne ay jigéen ay góor yoo xam ne fi lañ fanaan suur boobu noonu ma leen di laaj ñu ne mu ñoom ñibbiwuñ fi la ñuy fanaan ndax ñoom dañ bokk si ñi nga xam ne dañuy liggéey si liggéey bi ay ay jigéen lañu moo ma gis ne ñooñu ay ndaw lañ yoo xam ne xam naa ne ñi ci gën a bari ay fukki ak juróom maanaam 15 eh, years ba 18 18 eh, years weesuunu ko ñi ci gën a ndaw ay 18 eh, years lañ war a toll ñi ci gën a mag kon nga gis ne ñoo ñëpp kon lu man gisuma ko fen daal at yi passé nekk noonu di am kon loolu su amee ren mën naa jàpp ne am na am na soppaleku bu mag bu am surtout ci wàllu ndaw ñi daal si organisation bi nga xam ne ñu ngi ko organisé ma jege koo ko Sénégal bi ma ñëwee ak léegi gis naa fi gis naa fi ay assistance yu association yoo xam ne ni yokkoo ak loon bi njëkk nekkul benn ci bépp fànn nag ci organisation togg yi si wàllu tante bi si organisation bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo war a nekk ci tante bi di wax même jën sax ci seen bopp gis naa ne seen programme ren am na am na soppaleeku kon loolu war nañu jàpp ne tànk gën tànk yu yu kanam yu baax a baax am nañu ko mais xalaatu mukk mu yem tànk gannaaw romb na fi mu nekkoon moom loolu moom gis nañu ko bu baax baax a ko tam ak gis na nit ne maanaam li nga xam ne mooy adab bi teggiin bi nga xam ne moom la dëkk bi jox gan ñi day yokk jamono bu nekk dama ba waxtaan ak daaw jéeg du ren du daaw gàmmu gële fa mën naa war naa man ñetti gàmmoo euh, Euh, suñu kilifa gu baax ga nekk dakaar nga xam ne moo jiite mboolem day yi ba Ousmane Tarawale ma nuyu ko ci Maolana Cheikh euh, mbay sëñ Mbaye sëñ Babacar mbay këram la koy dal foo mooy dal waayam mu ne ma Ibrahima gis naa Gambia loo xam ne gisuma ko dakaar ma ne ko lan la mu ne ma du euh, ndawi Gambie yi yar bi ñu am neexul ba neexul waaye amu Dakar man ma ko dëgg la kay mu ne ma dëgg dëgg Gambia xam lu lu ne ci biti de waaye man li ma gis fii man man dama leen ñee seen ndaw ñi yar gi ñu am yar bi ñu leen yàlla yar te kooku du waxantu ne mu ngi maa dégg sax xëy na moo ma ko wax fii ci néeg sëñ Babacar Mbaye mii la ma ko doon waxee ndax boo ñëw bay ko maam Dakar ñëw fii ci gàmmu gi mu nekk leen ma loolu ma gis naa fi loo xam ne amul Sénégal ma ne ko ci lu wér la yar bi ma gis fii moom ak dal gi amul si benn dëkk si Sénégal bu dul fii laa ko gisee kon loolu dan la xel am na fondation boo xam ne am na yaakaar ne ñu ci gàmm gi kanam rek laay dem parce que yar lu mënta may doomu aadama ñàkk yar doo ko may te yara ngi fi kon fa tabaarakallaahu yokkute nga am jërëjëf ma balaa ma lay bàyyi ak sëñ Moustapha du ñàkk xëy na bëgg nga ànd ak mu waaye nga may ma rek ma am lu ma ko laaj su ko defee ma bàyyi la yow it nga dem ci moom sëñ Moustapha euh, euh, xam nga waxtaan wi yëpp euh, ñu ngi ko tënk ci li nga xam ne moo di moo di jàmm ndax thème bu ren bi jàmm la su ko defee ngay dikkal ñu ci li nga xam ne nag moo di jàmm jooju tey thème la boo xam ne bu solo ndax sëñ Moustapha bu ñu xoolee jafe-jafe yi nga xam ne àdduna mi ngi koy dund ndax duñu wax Gambie rek duñu wax Sénégal rek duñu wax Afrique kese waaye dañuy wax li nga xam ne mooy àdduna wërngal képp ndax boo xoolee jàmm gis nañ ay fitna gis nañ ay noonante ci nag xeet bu ne moo xam ci way politique la ba ci sax diine ji wàllum jafe-jafe jàmm jooju daf leen daal di dugg tey bu ñu ñëwee ci tànt bu am solo bi lee ci gàmmu gi sëriñ bi daayira bi ñu ne dañuy daal di jagleel li nga xam ne mooy ren gàmm gi muy jàmm loolu lu am solo la jàng ban jàngat nga ciy def laata ma lay bàyyee ki nga xam ne mooy Massiré alhamdulilah sëñ Mohamed Mbaye laaj bi am na solo lool jàmm Maulana Seydi Saïd daf ci liggéey loo xam ne lu rëy la bokk na ci defeer gu mu defeer ndaw ñi yàlla daf ko yónni wala boog yàlla daf ko wàcce jox ko ay cër yu rëy cër yooyu bokk ca leeru xaqiqatul muhammadiya loolee mu war a nekk ku nga xam ne moo koy tasaare ci adduna bi yépp mu jëlee ko ci kilifaam gu tedd googu mooy Cheikh Mouhamadul Kabir loole mu defaree ndaw ñi nag dafa yokk jàmm lool ci réew mi waa yokk jàmm it ci réew yi ndax kat ndaw lu deferu dafa am solo Muhammadul Buseyri radiyallahu anhu dafa wéy ne man lii bi raddi jimaahi min xawaayatiha kama yuradu jimaa xaylu bi lujumi fan laay jëlee koo xam ne dina ma orientel suma bakkan bi comme lahab nu may controle contrôler fasu naaru góor wu mammo gis nga jàmm foog borom xol bi dina rafet waaye borom dina mën muñ sunu borom subhanahu wa taala nee na wa jaal naa baadukum li baadin fitnatan a tashbiruun wa kaana rabbuka basira borom bi subhanahu wa ne wa jaal baadukum li baadin fitnatan def naa ñenn si yéen si ñeneen ñi ñu nekk fitna si ñoom waaye bi yàlla defe si biir jaam ñi ñoo xam ne ñoom seen dox yépp fitna la seen wax yépp fitna la borom bi subhaanahu wa ne atashbiroon ndax da leen muñal wa kaana rabbuka basira foog ñi muñ maam mawdo radiyallahu anhu nee wa raddini bi qada ya rabbi musabbirini ala balaika ya rahmanu yallahu yàlla wara diini bi xaddaa yàlla nag ma dimbale ma mën a gërëm say dogal bu yàlla dogalee ci yow ñàkk nga ne doo ko gërëm mooy waral nga jóg dem defi fitna ndaw ñi nga xam ne tey su leen Maulana Seydi Saïd defeeru toon ñu ngi jaar yeneen i place di def ay fitna ndaw yooyu nga gis fii tey ñu dajee Madinatul Anwar waaye maam Maodo ne yaa rabbi musabbirini ala balaika ya rahmanu yàlla nag ma dimbale itamit ma mën a muñ say balaa doomu aadama foog nga muñ foog nga muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax juróom benn mbir yoo xam ne bu si nekk daf ne baax na lool waaye am na si kum gën bi mu njëkkee mooy al adalu asanun walakin fi umaraay ansan mandu day lu baax la ñu ne waaw mu ne waaye nag si njiit la gën ashaqaawu ahsanun walakin fi axniyaay ahsan tabe de ñu ne ah mu ne lu baax la de waaye ci ki am la gën soo tabee te amuloo dara gar coono la lay yóbbee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu ne al warau ahsanun walakin fi ulamaay ahsan sàmm sa bopp lu baax la waaye ci borom xam-xam bi la gën nit su fekkee ne faraatu na am njàng wala dem ba foog ne am na xam-xam àgg si yenn niveau yi te sàmm wut amut kilifa gu ko defer kooku dina def fitna boo xam ne si kaw suuf kenn du xam nu mu toll ndax day bari ñu koy déglu moo tax yonent bi sallallahu ne sàmm sa bopp lu baax la waaye si borom xam-xam la gën ki yàlla yónni woon alayhi salaatu wa salaam del ne asabru asanun walakin fil fuqaraay asan muñ ñi ne ah mu ne baax na lool waaye ci ku ñàkk la gën ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alxayaau fi nisaay ansan kersa ñu ne ah mu ne baax na lool waaye ci jigéen la gën bu njëkk bi walla boog beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne a tawbatu asanun walakin fi shababi ansan tuub ñu ne ah baax na lool waaye ci ndaw yaa la gënee Maulana Seydi ci réew mi fii amul benn gox boo xam ne walla ci adduna bi amul benn réew boo xam ne tey aggut fa defar fa ñooña seeni njaboot ba ñooñu nekk roy fa ñu nekk Maulana Cheikhul Islam nee hoon na wa adlumu rabbiyan kabiran naasihan kaamilan hirfanin imaman saalihan maliku nafsaka fala tuddabirin wa kun ka maytin dawaman toxbiri mu ne wat lu mu rabbi yen yow nanga dem nga fexe ji nga wuti cheikhum rabbi kilifa goo xam ne daf laa yar defar sa ruuxu gi sol la muhammadiya nga xam sa bopp xam sa borom mën a tege si yoonu siraatul mustaqim ñu ne kooku nu mee mel mu ne xabiiran day fekk mu xam saayir xam baatin naasiyan nekk ku laabiir ci xam-xam bi kaamila irfaanin nekk koo xam ne ku mànd la ci leeru yàlla mat sëkk ci xam-xam bii nii ñu ne waaw boo gisee ku mel noon nag mu ne maliku nafsaka falaa tudbirin wa kun ka maytin dawaaman tuxbiri mu ne kooku soo gisee ku mel noonu te ñun nag gis nañ ku mel noonu mooy Maulana Seydi Saïd dem na ci Saïr bàyyee na ci fi Maulana Cheikh Seydi Bachir al Khalifa fi waajuram tegoon tànkam foofu la teg tànkam te waajuram def ko programme démb balaa tey tey képp koo xam ne toog nga ak moom nga déglu ko Fodé boo mën a doon ak foo mën a jógee ko doo ko xeeb ci xam-xam soo fi jógee ko danga nga xam ne waxuma xaqiqatul muhammadiya waaye ilmu shariat sax moo la ci raw foofu taalif na ay wéy yoo xam ne ni mu toll jéggi na dayoo am na yu génn am na yu génnagul kon kooku waajaloon nañ ko muy suñ xalifa bu tedd bi mu ne soo gisee ku mel noonu maliku nafsaka nanga ko moom la sa bopp jébbal ko sa bopp bul setantalati dara wa kun ka mayitin dawaaman toxbiri melal ci moom ni comme ab niiw niiw du wax ne nii lañ may sange du wax ne nii lañ may sàngee du wax ne nii lañ may suulee noona lañ koy defalee lépp lu ware ci moom mu ne nag soo doxee ba dajee ku mel ni kii jébbal ko sa bopp melal ni ab niiw rek moom xam na li war ci yow dina ko def Maulana Seydi Saïd fii la jaar ak ñun dëkk boo xam ne jaar na fa ñamu dajeet ba déey leen lam leen déey ñi déglu ko topp ay waxam ñooy tànnee fi dëkk booba kon jàmm foog danga nga muñ jàmm foog danga nga jéggale dégg neen déggaat ci ay kàddum nee na lépp lu ko nit def baal na la fépp fu mu dem wax na loolu duma fay wante ak kenn yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam demoon na xare di séddale marchandise di séddale bagaas bagaas boo xam ne bagage bu takku la ñii mu jox leen téeméeri gëléem ñii mu jox leen alal ju bari benn waay taxaw jàkkarleeg moom na ko ni nga séddalee manduwut te yàlla taxut mu ne su fekkee ne manduwuma man rasulullahi ana kan mooy mandu wala boog mu ne fekkee ne yàlla ak yonentam mandu wuñ ana kan mooy mandoti saaba yi kerek mer lool mu ne waaye rahimallahu Muusa yàlla na yàlla yërëm Muusa ndax loroon neen ko lu ëpp lii te def ko muñoon fokk ñi muñ ndax borom bi subhaanahu wa def ne inna allaha saabiriin man yàlla maag muñ yi ñoo ànd mawlaana seexul islaam ne su fekkoon ne lawlaa kaana fi sabrin ila mahiyatullahi tabaraka wa la kafaana dalika su fekkoon ne muñ de dara nekkut ci lu mooy ne yàlla mu ne moo ne maag muñ yi ñoo ànd mu ne lool rek doy na su fekkoon ne maanaam muñ digg leneen newu ci lu mooy yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ne man yàlla maag muñ yi ñoo ànd mu ne loolu rek doy na sëg kon doomu aadama yi faw ñi muñ eh, laaj nga ma loo xam ne dafa am solo lool Mawlaana Seydi Basiir jëlale naa ko waaye muqaddamam yii ak taalibeem yi képp koo xam ne tey jii déglu nga leen da jëlee fii loo xam ne su fekkee ne yàlla dimbali na la man ngaay bokk si ñuy jëriñu ren ba déwén ci seen kàddu ñoom waxuma la ak Maulana Seydi Bachir Al ndax li nexoon ci li nexoon ci waajuram def na ko ci moom te loolu la def ci sanguy tedd yi ku nekk mu teg la si ab palaas ngay yaraate yar ak teggin dafa nekk loo xam ne lu am solo la doomu aadama dañ koy programme mawlaana cheikhul islam ne hoon na fal adabul adab yaasal zalik fa innahu baabun li kulli zalik teggiin ñu ne ah mu dellu ne teggiin ñu ne ah mu ne yow mi na ma sóobu teggiin mooy sa buntu ak fépp foo mën a jaar rek teggiin mooy sa buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addabani rabbi fa ahsana taadibi yàlla moo ma yar te rafetal na suma yar bi te kooku mooy sunu royuwaay kon yar ak teggiin ci hadara bii kenn du leen ci xeeb waaye xam-xamit kenn du leen ci xeeb ndax xam-xam nekkul ne jàng téere yi ba dajal ko kese la déedéet maam borom Tuuba radiyallahu anhu nee na ca masaalikul janaan fal ilmu laa kasrati riwaaya bal innahu nuurun mahadiraaya xam-xam ñi ne ah mu ne du dajal riwaayaat yëpp de mu ne xam-xam leer la mooy xel mu diraaya moo waral nag ñi nga xam ne yàlla xewalal na leen ko suñ ciy wax yow mi xam ci téere yi léeg-léeg nga am ak ñoom problème ndax dégg-dégg yañ ca am yow amuloo ko moo tax indi indiwaat na foo wax joo xam ne su ma juumul abdu wadóot moo ko wax mu ne kàllaamul awliya lastu afhamu li anna nii ana ana wa hum humu waxi góor yàlla yi su fekkee ne amuloo faamu mënuloo ko dégg man maay man ñoom ñooy ñoom kon gar mi xam naa ñu déglu la ba ci kanam incha allah Euh, bokk yéen a ngi bàyyi xel ay Africa TV noo ngi fii ci Banyanka euh, ci dëkk bu sell bi ci gàmmuk euh, ren jile tombeek atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett dëppook ñaar fukk ak fukki fan ak juróom ñaar ci weeru setumbar ñu toog fii nag di ko di ko màggal waaye nag cérémonie officielle bi léegi tey kilifa yi daal di tàmbali waxtaan wi ndax nag boo xoolee ñoo ngi tàmbalee dugg ci ci li nga xam ne mooy ci tànt bi ngir rek fas yéene waxataane wala wax ci li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ni cérémonie officielle bi ren nag ñu koy amal euh, daa fi déggee ay kaddu yu am solo ndax ñu ngi xaar ci sëriñ bi ci boppam euh, mu daal di fi euh, yàbbi ay kàddu ngëneel yoo xam ni ci ndaw ñi ci soxna yi ci ñëpp waaye nag ci àddina si waxuma bàññaak Gambia kese waaye itam ci àddina sépp ñoo ngi fas yéene teewlu ngir xerewlu ci ay kaddu ngëneel yoo xam ne sëriñ bi dina ko rek daal di yëkkati ci kanam tuuti ci li nga xam ne mooy ci cérémonie officielle bi di ko mën a amee wala seetaan lépp ci li nga xam ne nag mooy ci ay Africa TV ndax ni ki ni ma leen ko waxee matériel bi lépp lañu indi fii ci Bañaaka bàyyiwuñu dara ca Wélingara ngir rek mbir mépp daal di ala daw su ko defee rek euh, Massiré euh, ma daal di la bàyyi ak sëñ Moustapha laata ñuy delluwaat ci sëñ Ibrahima du ñàkk it ñu gën a waxtaan waaye nag euh, bu cérémonie officielle bi dooree rek su ko defee ñu daal di jébbal leng yi yëpp nag kilifa yu tedd yooyu ngir ñu daal di door waaye laata ñuy door ñun tamit ñu gën a yaatal waxtaan wi rek ak ki nga xam ne moo di sëriñ Moustapha Cissé. baax ci kàddu yi nga xam ne euh, rutal na ko fii nii waaye nag euh, tey nag mu nekk bés bu nga xam ne euh, dañ dañuy wax ne alhamdulilah waaye du ñàkk nag mu am béréb bu nga xam ne kii di suñ papa Said manqué na ko manqué na fi di ñu mën a wax rek si ban faat na ngeen yéeg ne manqué na tey si bés bi. Ah, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala maulana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Maolana Seydi Saïd def nañ gàmmo goo xam ne ci jëmmam ci saayir suñu ko mu waaxu waaxaw mu wa njëkk woowu dem yéeg sa tirbine bi fële ñu koy xool xanaa loolu day moo ciy manqué waaye bu fekkee ne xam-xam bu mu doon sotti fii la waxoon naa ko ma jële la naa Maolana Seydi Basir waaye Seydi Ahmad daam sekk ma lay war a def conférence bi bu insha allah deneen dégg lu fees nopp Seydi Bara Omar ak muqaddam yi ne fële Seydi Pape Congaan wala Ama Congaan ak Pape Kayre ñii ak muqaddamam yépp min awal ila axir koo si jox maayik bi Maulana Seydi Saïd lam doon wax ding ko dégg ndax daf daan wax ne man balaa may kontaan ma toog ngeen waxtaan di waxtaan di waxtaan ba ñi ñi tàggale ko seen sago ndax def naa ko ci kanam suma sëriñ te lam doon wax am na ne mu ngi ci gaay yi kon lenn rek laa jàpp ne mooy xawa a manqué tuuti mooy ci saayir jëmmam ju tedd jooju nga xam ne taaram boobu amutoon waaxoo fële jaar ci mbedd mi ñi koy xool mu yéeg toog te Maulana Seydi Bachir Al bu jaaree fii da xam ne mbir mi du ñaar benn la kon kooku yàlla na yàlla fayal ñu ko. ñi ngi aywa aywa aywa waaw kay mu doon loo xam ne wéetaay woowu dong lañ ciy xalaat waaye du leneen lam war a def def na ko bu yàgg balaa fay jógee ko loolu moom ñun xale yu ndaw yi nga xam ne luñ xam bëriwul sax suñ xel daal na ci loolu maasira jërëjëf si sa laaj boobu. ma ma balaa ngay ñëw sax xam naa euh, sëriñ daam euh, Seck euh, moom it doon ab mu xadam ci kër gi waaye doon itam ki nga xam ne ci Eye Africa fii la daal di bokk moom itam ci kanam tuuti bu yëpp yemboo nañ ko jébbal lenge yi ngir rek mu door li nga xam ne mooy conférence bi laataa nag cérémonie officielle bi ak kilifa ndax ñoo ngi dugg ci ci tante bi ndànk-ndànk waaye ki nga xam ne mooy sëñ Dame Seck wala sëñ Ahmed Dame Seck moom ci boppam ñu ngi ko daal di mu ngi toogaa. yóbbaale euh, si kanam tuuti rek su war a départ euh, nañ leen ko daal di jox euh, ngeen daal di diktal bokk yéen a ngi seetaan ba tey Africa TV ci kanam dinañu rek daal di ñëwaat jàngataat li nga xam ne mooy ginnaaw bu sëriñ bi yëkkatee ay kàddu ba noppi dinañ ko jàngat waxtaan ak ci ak suñu ñi nga xam ne mooy suñu gan yi di Ibrahima sëñ Ibrahima ture ak ki nga xam ne itam mooy sëñ Moustapha Cissé su ko defee rek bu fekkee sëñ Ahmed Dame yemb na dama koy rek daal di bàyyee kàddu gi mu daal di rek doxal ni ki ni ko Africa TV di defee fii mooy télé jaaxle euh, jinne yi waaye ñu ñëw ci dëkk bu sell bi euh, di euh, Bañaaka Madinatul Anwar su ko defee rek sëñ Ahmed Dame noo ngi lay nuyu di la rek bàyyi yow it nga daal di fësal li nga xam ne rek moo di ay kaddu noonu la jërëjëf su ko defee rek ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Sosé moom nag dañ koy bàyyi mu daal ñuy dugalal ki nga xam ne. mooy moom mooy caa li nga xam ne mooy programme bi moom dañ koy daal di bàyyi moom sëñ Ibrahima Socé noo ngi lay siyaare sëñ Ibrahima bàyyi la yow itam nga daal di dugal euh, sëñ Ahmed daam euh, sekk su ko defee nag euh, kàddu njëriñ yi nga xam ne dina ko daal di jib ñu daal di koy teewlu ci Africa TV mbokk yi bu kenn daw toog leen ngeen seetaan ay Africa TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ixwaani fi llah nuraxibu bikum wa nuhanni'ukum wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban wa nuhayi'ukum bi afdali wa ahsani tahiyya wa hiya tahiyyatu ahlul janna fil janna awaluha assalama wasatuha arrahma akhiruha albaraka allah wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nayu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen wàcce seen wàccuwaay waaye di leen dalal fii ci madinatul anwar ci Banyanka si ron keppaaru mawlana cheikh alhaaji said omar kebbe radiallahu taala anhu si njiital alxalifa mawlana cheikh basir said omar kebbe ayadahullah wa nasarahu wa nafaana bi allah mu mel ni ñu ngi leen di nuyu at bu jot bu nekk fii ci Banyanka ci madinatul anwar ci ron keppaaru Maulana Serigne Saïd Oumar Kébé mu mel ni jamono bii ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di ñaanal suñu xalifa Maulana Cheikh Bachir Saïd Oumar Kébé yàlla yàggal ko fi lool lool te may ko wér moom ak rakkam yépp mu mel ni si loolu la jaar nayu ko ziyaare ko jaar ci moom itam nayu njabootu Maulana Serigne Saïd Omar Kebe gi yépp waaye itam xaasal si suñu yaay Fatou xaasal si itam suñu maam Atta Diallo noonu itam lañu nuyu porte parole kër gi di suñu papa Cheikh Babacar mbay ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di ko ñanal yàlla fan ak wér moom itam noonu lañu nuyu ziar président bu Naylul Huda wala président bu exécutif bi di suñu papa Cheikh Jim Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax moom ak ña xam ne ñoom la ànd ak ci exécutif bi yëpp nga xamante ni ñoo jiite organizing committee bi ñoo taxawal lu mel nii ñu ngi leen di nayu di leen ziar noonu itam la ñuy nuyoo ziar présidentu na di suñu papa Cheikh Oustaz Daouda Thiam moom mi nga xam ne moo jiite na bi ñu ngi koy nayu di ko ziar di ko wàcce wàccuwaayam moom ak kilifa yi nga xam ne ñoom la ànd ak si laj na bi yépp noonu itam lañu nuyoo ziyaare gan ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyeekoo ci ay place ci ay gox yu fasanti ko ñoom ñëpp dog seeni itte ñëw teew fii si madinatul anwar si keppaaruk Maulana Serigne Saïd Omar Kebe ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàccee seen wàccuwaay mu mel ni waxtu li ñu may ñu jaar ci kenn ku nekk turam dañ koy tënk noonu rekk nayu kilifa yi nga xamante nii ñu ngi toog ci kaw terbin bi yépp mu mel ni suñu nayoo suñu sëriñ Maulana Cheikh Bachir Sayed Umar Kebe nayu porte-parole kër gi nayu ku jiite exécutif bu Gàmbi di suñu papa Cheikh Jim Diop nayu itam suñu papa Cheikh Ousmane Tarawale moom mi nga xam ne moo jiite exécutif bu senegaal ñu jaar ci moom nuyu senegaal Sénégal yépp suñ nuyu itam suñu pappa Cheikh Oustaz Daouda Thiam moom mi nga xam ne moo jiite laj na bi mel na ni nuyu nañ mbokki taalibe yu fi teew yépp nuyu nañ muxaddam yi nga xamante ni ñoo jóge ko ci ay gox yu fasantikoo ko ci bit réew mi ak ci bitim réew jóge ko ci Sénégal ba Amerika ba yeneen réew yu ñuy wër yépp am na ñu fa jóge ko ñëw ci jotaay bii mu mel ni suñ demee ba ci guddi gi suñu ko waxtu mayee dinañ tànn ci ñooñu ñenn tudd leen ñu représenté ñi nga xamante ni ñoom ñoo des incha allahu rabbi waaye mel na ni léegi juróom benni waxtu jot na ba pare te dafa mel ni ñeenti waxtu lañ waxoon ne su jotee la ñuy commencé programme bi mu mel ni gan ñi doon séntu itam yegg si nañ balaa ñoo dugg si bëgg nañu dégg lenn ci ay kàddu ci ki nga xamante ne nii moo war a taxawee conférence bi di al mufti suñu papa cheikh oustaz Daoud euh, Dame Seck nekk boroom xam-xam bu mag nekk koo xam ne nekkatut ku ñuy présenté ci àdduna bi ndax duma wax nekkatut ku ñuy présenté ci naylul huda waaye dama naan nekkatut ku ñuy présenté ci àdduna bi comme ni ko Cheikh Mbaye Garmi waxee daf dee nekk fii ci ay Africa di fi amal waxtaan yu am solo soo duggee ci YouTube bi ay vidéo yu bari ñu fa kon nekkatut ku ñuy présenté ci àdduna bi boroom xam-xam bu mag la ku géejal la ci mbooleem géeji xam-xam yu ñuy jàng bi mu ko géejalee itam yàlla dimbale ko may ko fasaatul lisaan bi nga xamante ni su waxee nit ñi mun mun koo dégg comme ni nga xam ne noonu la ko suñu sëriñ Maulana Cheikh Bachir Sayed Omar Kebbe waxee woon barki démb fii bi ñu tëj burda bi ne nit mun nay jàng ba dajal téere yépp waaye fekk du mun wax wax jàkkle la bu yàlla di jagleel doomu aadama nit ki nag su jàngee téere yépp ba pare yàlla jagleel ko mun a wax loolu beneen xiwal la ci kaw xiwal kon suñu papa Cheikh Oustaz Dame Seck loolu la ko yàlla defal muy boroom xam-xam bu mag alhamdulilahi rabil alamin moom la ñu jox microphone bi mu ubbi ñu conférence bi mu mel ni ubbi bi mu ubbi conférence bi itam mooy nekk ubbi waayu gàmmu gi ndax topic biñ tànn danañ ko waxtaanee ci gàmmu gi moom mooy jàmm ñu ñëpp xam nañ réew mi walla àdduna bi léegi naka la mel ci ay jafe-jafe ci ay problème kon nag Maulana Cheikh Basir Saïd Omar Kebbe al Khalifa tànnal ñu topic boobu muy jàmm ñu ne nañ ci waxtaan moom laa ubbee woon léegi ne lenn la ci xiwali aljana yi nga xam ne yàlla daf ko jël baaxee ñu ko fii ñu koy jëfandikoo waalee kon suñu papa cheikh oustaz Dame Seck al mufti moom la ñuy bàyyee antenne bi ngeen ànd ak moom incha allahu rabbi kon euh, ya oustaz fal ya tafadal maskura assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin rabbil awalin wal axirin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ali adadin wa madadin wa ala kulli man ittabaca hudaahu ila mada amadin wa radiya allahu an sayqina wa mawlana ahmad bni muhammadin wa ala wa an ashaabihi wa talaamiisihi ahli ilmin wa rusdin wa radiya allahu an sayqina wa mawlana muhammad نجل عيسى ورضي الله عن سيقنا الزيد الهاج سعيد أبو موسى ورضي الله عن جميع اتباعهما أعلى رشد والعرفان أهالي الإسلام والإيمان والإعزام السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة والأقوات والأحبة والصادقات وأقول لكم السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu yi gannaaw bu ñu leen nayoo gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi ñi ngi ñëw ci waxtaan wi nga xam ne moo di xubbite gàmmo gi ci gannaaw bu xamee ne saadaat yi jiitu nañ fi waxtaan fi waxtaan wi am solo te waxtaan yi yëpp jëm ci comme nu nu ko suñu sëriñ sante muy sëriñ Mouhamadul Badir ibn alhaaji Saïd bun Omar Kebe ataala baqa'a wa mataana bi hayaatihi wa barakaati pour ñu waxtaane lu enu ci wàllu jàmm muy assalaam nga xam ne ci siixatu masdar ñëw na ci alquran lu juróom fukki yoon ak dara kon ñor na yàlla subhanahu wa taala ba mu e, takaraar ko ci alquranul karim lu juróom fukki yoon ak dara ci siixatu masdar waxuñ beneen siixa waaye siixatu masdar ñëw na ci lu toll noonu te itam amul benn diina walla benn yonent boo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala jox nañu ko wala mu yónni ko fi lu dul ne ci loolu la ko yónni woon mooy al islaam loolu nag mooy tax nit ki lu muy doon mu doon ko maa daama jàmm amut kenn du doon dara jàmm googu bu nu seetloo yàlla subhaanahu wa bu muy nettali yonent yu bari kenn ku nekk ci ñam daf koy tuddee mu bokk ci muslimine yi comme bu ñu ko dalee ci yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wassalaam muy wax yàlla subhaanahu ne ko balaa may génn àdduna yàlla nag ma def may ab julit wa nii muslima yàlla nag ma def bi may génn àdduna ma nekk de koo xam ne muslim lay doon bu nu demee itam ci yonent yàlla suleymaan alayhi salaatu wassalaam ba nga xamee ne ndaw soosu nga xam ne moo jiite woon saba ba mu ñëwee fa ne aslamtu aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamin kon dugg naa ci islaam ànd ak suleymaan te loolu ba ma koy def dama koy def te yàlla rek subhaanahu wa taala tax boo demee itam ci ismaila ak baay ja sunu maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam ak doom ja da ismaila ñoom dañ na yàlla ñun bëgg nañuy bokk ci jullit yi bokk ci muslimine yi yàlla subhaanahu wa taala da nettali mu ne ibrahima mii nga xam ne yéen moo leen tuddee muslim kon yépp ay mbir la yoo xam ne li muy wane mooy baatu islaam bi walla muslim bi mooy tax àdduna mën a avancer waaye kenn ku nekk ci ñun mën a avancé euh, yàlla subhaanahu wa taala jàngale na ne gën nañu ëppante doole ci nu ñu war a bëggee jàmm ci société bi loolu yàlla subhaanahu wa taala jàngale na ko masalan ki nga xam ne dañ ko tuddee simple oustaz nga xam ne mi ngi mel ni man amut mboolo mu koy topp soxla na soxla na jàmm waaye ki nga xam ne itam mooy chef du village bi walla mooy alkaali bi kooku moo gën a soxla jàmm foofu ndax moo ëpp mboolo waaye ki nga xam ne itam mooy chef bi walla mooy député bi ci gox bi moom itam soxla na mboolo waaye am na mboolo moo gën a soxla itam jàmm waaye ki nga xam ne ministre la itam moo gën a war a soxla jàmm gën caay taxaw ci lu tax jàmm di am loolu yëpp alquran jàngale na ko subhaanahu wa taala leeralal ñu ko euh, ki nga xam ne itam moo jiite réew mi yëpp ñun ñëpp bu ñu soxloo jàmm moom moo ñu war a gën a sonn ci lu tax jàmm di am waaye bu ñu jëlee benn góor teg ko fële jël benn jigéen teg fële jigéen moo war a gën a soxla jàmm ngir itam am na lum taxawee loo xam ne góor gi sax taxawee hut ko yàlla subhanahu wa taala di jàngale loolu ci alquranul karim bu ñu seetee ci suratu maryama zaaru jigéen la jigéen moom la ko yàlla subhanahu wa taala tudd yàlla tudd na fa baatu salaam ci siixatu masdar ñeenti yoon waaye amut benn saar boo xam ne moom la tuddee góor tudd fa baatu salaam walla sax mu am saar bu mu tuddee góor boobu amut am na benn simple góor bu muy tuddee euh, saar waaye amut mbooloom euh, jigéen góor ñoo xam ne ko ñoom la tuddee benn saar comme mën ngaa jàng suratu nisaa yi muy saaru jigéen ñi waaye suratu rijaali amut ci alquranul karim suratu Maryama bi nga xam ne benn turu benn jigéen la yàlla subhaanahu wa taala tudd na fa azalaamu ci siixatu masdar ñeenti yoon muy wane ne kon jigéen ji moo war a gën a taxaw ci luy tax jàmm am ci kër gi waaye luy taxitam jàmm am ci dëkk bi waaye luy taxitam jàmm am ci réew mi loolu jigéen la gën a war ci góor gi donte sax am na góor goo xam ne moo jiite réew mi yépp bu loolu paase dafa am sóoratu saafaat mooy saaru sàppe yi saaru sàppe yi saar wi nga xam ne yàlla mi ngi ci tudd ay sàppe loolu saar boobu yàlla tudd na fi baatu salaam juróomi yoon boo xam ne dafa ñëw ci siixatu masdar ñëwut ci ismu faahil ñëwut ci fexel waaye yim ci ñëw ci siixatu masdar tax ñuy wax yooyu juróomi yoon kon loolu dafay tegtale ki mbooloo mi topp ki la gën a bari mbooloo moo la war a gën a soxla jàmm waaye moo war a gën a daw lépp loo xam ne dafay loraate te nit du mën a nekk jullit daama duwul ne dafay jéem a njëmbat jàmm ci dëkk bi waaye jéem koy njëmbat ci kër gi waaye jéem koy njëmbat ci réew mi waaye jéem koy njëmbat sax ci réew yi mu dëkkat yépp moo tax yonent bi sallallahu noon na al muslimu ñu ne a ah, mu ne man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yeddi julit mooy koo xam ne nit ñépp rawat na julit yi mucc nañ ci làmmiñam ak ci loxoom làmmiñam mooy lam cay wax moo xam daf koy wax nit ñi da ko déglu wala daf koy musique nit ñi da ko déglu wala daf koy defee neneen ba nit ñi dégg ko loola na ca wax jàmm su loolu kooka bu ñuy kont jullit yi duñ ko ci mën a kontaale ndax làmmeñe woon jullit yi mucciñ ci te bu amee jullit yu mucc ci sa làmmeñ te jullit yëpp mucciñ ci sa làmmeñ wi kon ba tey yow doob jullit masalan bu fekkee ne dëkk bi téeméeri nit a fi nekk juróom-ñeent fukki yëpp mucc nañ ci sa làmmeñ waaye am na fi fukk yoo xam ne amuñu jàmm ngir saw làmmiñ yow ba tey bu ñu konti jullit yi duñ la ci mën a kontaale parce que jullit yëpp la wax al muslimu ñu ne ah mu ne man mooy ka nga xam ne zalima mucc na al muslimuna mboolem jullit yi te loolu ixraax la maanaam ku doonul jullit sax war naa mën a mucc ci sa dafa jël jullit yi waaye ku dul sax war naa mën a mucc ci saw làmmiñ ndaxte gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ma bokkatoon dëkk ñi mu bokkatoon réew ñi ma bokkatoon de dund ak ñoom ñoom ñépp mucc nañ ci aw làmmiñam waaye mucc nañ itam ci loxoom xam naa dana am ko wax ne ah géer yi nag waaye géer yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkatiwut benn geer boo xam ne dafay nit daf cay loro mu yëkkati ko enele ko ci aw nit lu dul ne ñooña ñoo jëkkati yëkkati finn jëme ci ko ci kawam mu défense boppam parce que noonu la guerre yëpp demee waaye duhun ne moom dafa yëkkati woon guerre di ko sotti ci kaw gaa yi comme ni nga xamee ne noonu lañ ko doon gisee ci ñenn nit ci suñu réew yii waaye jullit bi itam ba tey jullit yi dañuy mucc ci loxoom loxoom boobu moo xam dafay dóor wala dafay bind luy gaañ walla muy saayin loo xam ne dafay gaañ walla nu ko mën a defee moo xam loola am sunguf la walla am mbind la wala ab saayin la ak num mën a demee <clears throat> daama jullit yi muccuñ ci loxoom kon kooku doo gudd ab jullit jullit nag fekk doxuloo ko doo guloo kuy mën def al islaam moo tax ba yonent bi sallallahu sallam ci hadiis bu muy jàngale mu ne masalul muminina fi tawaadudihim wa tarahumihim masalul jasad isastaka min oduwun tadaa sahirul jasadi bis sahri wal ama mu muttafaqun alayhi mu ne jullit daal buñ koy misaal dafay mel ni benn jëmm la jëmm boobu su amee loxo buy metti jëmm ji yëpp ñooy yëg feebar waaye su jëmm ji amee bët buy métti jëmm ji yëpp moo yëg feebar waaye su amee itam nopp buy metti jëmm ji yëpp moo koy yëg kon jullit yi benn jëmm lañ boo ci loree kenn ci saw loxo walla ci saw làmmiñ doo guloo ab jullit su ko defee nag ana lan mooy islaam al islaam masdar la ci aslama islaama képp koo xam ne baatu salaam mooy mucc islaam mooy musal musal nag bi ci gën a yomb mooy nga dëkk ak jullit te kenn du la tawat ci daraam fennam lennam daraam masalan dula tawat ca këram dula tawat ca toolam dula tawat ca bitigam du tawat ca ofisam du tawat ca daaraam waaye dula la tawatit ci taalibeem kon boobaa andi nga fa as salaam waaye islaam mom leneen la comme ni nga xamee ne noonu la waa ji ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sol yére yu weex fur kawar ga ñuul kuk mu agsi toog gaa yi toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn xàmmewut gan gii mooy kan parce que bu dëkkoon ci dëkk bi ñu xam ko waaye ñi fi toog kenn xamut ko waaye itam li leen ci gën yéem mooy yéreem yi sifoné wut ba mel ni dafa waroon fas wala mu war gëlëm wala mu dugg ci oto wala sax boog tànk yi fënd mu mel ni dox na lu bari lii yëpp amut ci waa ji mu ñëw jël xóomam yi sëkk ko ci sëkk ko ci xóomi yonent bi sallallahu alayhi wa fab ay loxoom teg ci luppi boppam yi ne ko yow mi yàlla yónni dama lay laaj ana lan mooy al islaam ba ko koy wax nag islaam mooy nga seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu bu xeeyoo jaamu kudut yàlla nga gëm itam dëggal nga nangoo taxawal julli juróom waaye nangoo génne asaka waaye nangoo xaj makka waaye itam nangoo xoor soo ko defee yii kon def nga li ñuy tudde al islaam muy islaam bi nga xam ne mooy saahiru islaam waaye bu ñu ko yàlla mayee danañ ñëw ci lan mooy islaam mu ne ko wax nga dëgg waaw ana lan mooy al iman mu ne ko mooy nga gëm ne yàlla kenn la gëm yonentim yi gëm téeréem yi gëm malaaka yi gëm gëm gëm bam jeex mu dellu ne ko wax nga dëgg mu ne ko ana lan mooy al i'zaan mu ne ko an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in taraahu fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla ba mel mu mel ni yaa ngi gis yàlla waaye soo gisut yàlla it nga xam ne yàlla mu ngi lay gis waaye an taabuda ka annaka taraahu in lam takun in lam takun taraahu waaw boo fi nekkatul yow rek gis yàlla su ko defee al islaam mbir la moo xam ne waa ji dafa nekkoon ci tolof tolof war caay génnee yow yaay ki góorgóorlu ba génnee ko ci tolof tolof boobu waaye yóbbu ko ci salaam loolu nag dafa am ci lu ñuy tuddee nit ñu ko ci man ak lu ñuy tuddee nit loo xam ne ñoom mënuñu ko waaye nag fu ñuy musalee duñ ko fa duñ ñi ko mënut fu ñuy musalee duñ ko wuutee waaw manaa ñi nga xam ne ñoom mënuñee def islaam fu ñuy defee islaam ñoom duñ ko wuute islaam moomu comme ni nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala noonu la ko jàngale ci alquranul karim dafa am koo xam ne walla ñoo xam ne dañ naan ñun dey gëm nañu yàlla moy xomatu nañ yàlla na déedéet qaalatil aaraabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna wala ma yadxulil imaanu fi qulubikum ñun de gëm nañ yàlla masalan bokk ci islaam yàlla ne déedéet yéen defagu leen islaam islaam nag comme ni ma ko waxee noonu dafa am fu nit ay toll mën a def islaam ak foo xam ne bu fa tolloo du ko man bu tolloo foofu du ko man islaam moomu yonent bi salaay salaam jàngale na ko mu ne man istataa minkum al baata fal yatazawaj yéen ku ci mën a denc soxna na ko wut ma loolu amut islaam du mën a am salaam mën nay am waaye islaam du am salaam nag bu amut dëkk bi du am dëkk bi dara du fi baax islaam moomu mooy loo xam ne góor yàlla yi ñu bari wax nañ ci gannaaw bu ci yàlla subhaanahu wa taala waxee yonent bi salaam wax ci waaye góor yàlla yi itam wax nañ ci liñ ci waxee mooy lan moo di ne soo bëggee jàmm am islaam am da ngay rafetal jëmee ci aw nit soo rafetalul jëmee ci aw nit jàmm du mën a am islaam du mën a am te rafetal jëmee ci nit woowu moo ni dafay am koo xam ne na ko wéykat ba waxee mu ne ahsin ilan naasi tastaabat qulubuhumu fa taalama staabada insaana ihsaanu mu ne na nga rafetal jëmee ci aw nit soo rafetalee jëmee ci aw nit waxuma nga ñoom ñi rafetal jëmee ci yow waaye dañuy mujj soppeeku say jaam te soppeeku jaam boobu mooy tax nga mën a def al islaam ca foofa ca ñooña ca kooka su fekkee rafetaloo moom du nangoo nekk sa jaam te noonu la ko góor ga waxee ba tey mu ne wa man yadoo waslan bi layla walam yakun samian mutihan naasaathu makazibu ku ne man mii dee layla laa bëgg mu nekk sama soxna te layla bu ne la may ma hundred dalasi doo ko may wala bu ne la may ma mille francs doo ko ko jox mu ne bon dañ naan la ah yow de bëggaguloo layla parce que boo bëggoon layla foog nga am loo ko jox loolu bu boobaa foofa islaam di amee waaye itam foofa la salaam di amee islaam bu amee salaam am waaye salaam mën naa am te islaam du am parce yàlla mu ngi jàngale loolu yonent yàlla mu ngi naan ci kenn ci yonent yàlla yi ca suratu Maryama mu ne mucc yàlla na nekk ci man ci bis bi may juddu ak bis ba ma fiy jógee ko waaye kooku bu ñu seetlee def na xam na islaam xam na salaam kon waaye xamut al islaam xam na salaam de ku yàlla yónni xam nga salaam bu doy waaye nag kooku de moom amutoon al islaam mooy kenn jaarewut ci moom mucc xam naa li may wax ko xam ne xamuloo li may wax dangay ngay ne dama koy dama dama wax lu amut waaye li ma wax loolu la kenn jaareewut ci ma mucc amuloo kenn koy gis ñu ne diw mii diw moomu moo ko musal kon islam boobu su dee ne li ma doon wax jeexul moo di boo seetloo képp koo xam ne yaa ngi am responsable ci dara moo xam danga nga di ab alkaali walla danga di ab chef wala danga nga di ab député wala danga nga di ab ministre yow war ngaa taxaw ci jàmm ak yow mi di ab président sax war ngaa taxaw ci jàmm pour umma bi am jàmm ndaxte yàlla subhaanahu wa taala ci suratu saafaat saaru sàppe yi juróomi yoon la tudd baatu salaam ci siixatu masdar loolu kon euh, ustaas bi lu mu bëgg-bëgg jàmm imaam bi moo ko war a gën a bëgg ndaxte moo ko gën a yëlif mboolo imaam bi mën naa yëlif ustaas ak mbooloom mi waaye yëlif mboolo yeneen yoo xam ne bokkul ci mën a bokk ci li ustaas bi di yëlif waaye itam euh, borom dëkk bi mën naa yëlif ay imaam yu bari kon moom moo gën a soxlawoo jàmm ci dëkkam bi waaye ci imaamam yi waaye ci maamoonam yi waaye ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi sax te duñu ay julit waaye ki nga xam ne mooy député bi nga xam ne moom itam xilif na alkaali yu bari moom moo gën a soxla moo war a gën a soxlawoo jàmm ci lépp luy indi jàmm ci dëkk bi ak ci société bi mu sonn ca ba jàmm mën a am waaye itam ki nga xam ne mooy ministre bi mën naa xilif ay ay député yu bari ñu nekk ci ronam kon moom itam moo gën a xaajowoo pour mu indi jàmm ci dëkk bi waaye mu indi jàmm ci réew mi waaye mu indi jàmm ci mboolem ummatul islam bi yëpp waaye naka noonu itam ki nga ne moo jiite réew mi yëpp moom itam mooy gën a soxlawoo jàmm ndaxte su nit ñi amutee jàmm moom du am jàmm ndax nit ñi moom lañ dénk seen bopp waaye dénk ko seen alal waaye dénk ko seen diina waaye dénk ko seen doole waaye dénk ko seen mboolem mbir yëpp kon kooku itam moo gën a soxlawoo jàmm ba tax na ku la ëpp mbooloo moo la war a gën a sonn ci luy tax jàmm am moo la war a gën a mën a muñ ci lu tax euh, jàmm mën a delsi parce que itam boo boo muñut jàmm du am comme ni ko ki ko doon waxee waykat ba mu ne azabru misle ismi yi fi kulli naibatin lakin awaqibuhu ala min al asari mu ne euh, muñ dey comme turam wi la ci naqadi zabru mooy firi lu naqadi mu ne kem turam wili ci naqadi waaye boo muñee nag baa nga ci cappaa ndaw ga wax dëgg yàlla loola mooy dàq lem parce que la ca gën a neex mooy maayatullaahi bi nga xam ne ki doon wax nuunu mbokk moomu doon wax mi ngi ko wax ne xànd ak yàlla gi loolu rek doyoon na bu fekkoon diggewuñ ci dara kon li indi jàmm euh, dafay nekk mbir yoo xam ne mbir yu bari la ñuy dajale jàmm mën a am yàlla subhaanahu wa taala tuddee na boppam baatu jàmm boo dee jàng asmaullahi alhusna allahu rahmaanu rahimu malikul qudusu salaamu loolu tur la ci turu yàlla yi mooy tur yi jàkk ci tur yàlla yi ci la jàkk allahu rahmaanu rahimu malikul qudusu salaamu muy juróom benn li tur ci asmaullahi alhusna yi nga fekk ne yàlla tuddee na fa boppam tur woowu te itam bi mu ko tuddee boppam daf koy wisaare ci kaw mboolem jaam yi waaye da ko jàngale da ko yónni yónent yi pour ñu ñëw nekk ñoo xam ne dañuy indi jàmm ci nit ñi ndaxte xam na ñoo xam ne na rek lañuy la ñuy indi euh, nga xam ne duñu ñu indi mukk luy saxal jàmm waaye bu doon seen sogo ñoom na rek lañuy ñuy indi waaye fitna itam ku ko indi la yonent bi waxoon mu ne fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na képp koo xam ne xee na ko fitna bi muy nelaw képp ku ko yee mooy képp koo xam ne sababu nga ba jullit yi amuñ jàmm yow yàlla jéppi na la yàlla na kum jéppi yërmande yàlla mën nga koo bañ a ñàkk mën nga koo ñàkk ndaxte yàlla bu la jéppee lépp lu dul yàlla itam fa lay jéppi kon muñ moomu xama jàmm jooju moom la fi yonent yi doon andi yonent yàlla Yunusa moom itam bokk na ci ñi nga xam ne da wax ne moom ci ñi fi indi jàmm la bokk moom itam minal muslimina loolu ñëw na ci alquran yonent yu bari yoo xam ne kenn ku nekk dafay wax ne moom jullit la dafay wax ne moom muslim la mooy kuy indi jàmm muslim mooy ki indi jàmm ñoom loolu lañ doon dund amul benn yonent boo xam ne mos naa ñëw lu dul ne loolu la millata abikum ibrahima huwa sameekumul huwa sameekumul muslimin seen yoonu baay wi nga xam ne moo leen tuddee jullit kon dañ ci xamee ne ibrahima alayhi salaatu wasalaam moom muslim la woon te ci loolu la doon woote te itam képp koo xam ne yaa ngi doon def loo xam ne wuutee nga luy indi jàmm moom mënutoon a def ak yow waaye yonent bi saai sallam képp ku doon indi itam loo xam ne du jàmm mënutoon a def ak yow daan na wax ne ñun de danañu kontaan ci mais wane kontaan ci kanamu aw nit te fekk ne suñ xol yi mi ngi leen di rëbb ñooña la taxoon yonent bi da leen rëbb mooy lañ doon lañ doon def dap dëppoowut ak islaam waaye dëppoowut ak jàmm waaye dëppoowut ak nite dafa am benn bis rek ay gaay ñëw ne ko ñun dañoo bëgg a tuub dugg ci diine jii ngay woote waaye dañoo bëggoon nag buñ ci duggee nga am loo ñu fal masalan nga fal ñi ñu nekkal la Koofa wala ñu nekkal la Saam wala ñu nekkal la Iraq wala ñu nekkal la feneen ak feneen mu ne leen bu ngeen duggee ci diine jii lépp lu ñu war ci ñu défense diine jii war na leen lépp lu ñu ñeexal rek yéen itam loola itam ñeexal na leen ñu ne ko ñun duñ doyloo loolu te soo ñu falut duñ dugg ci diine ji te suñ fi jógee kooyee danañu indi ay soldaar yoo xam ne yu am doole lañuy doon te mën a xeex buñ ñëwee danañ la rey rey ñi la topp ñu bëri yàq fi sa diine ji du fi taxawee mu ni leen yàlla ak am na u xaylata duñu nangu waaw parce que ñooñu duñu nangu loo xam ne dafay wuute ak jàmm waaye dafay wuute ak nite waaye dafay wuute ak itam jàmmal mboolem julit yi waaye mboolem ku doonu julit maadaama ab insaan nga islaam boobu yàlla subhaanahu wa loolu rek la mos a bépp yonent boo xam ne ñëw na fii yàlla subhaanahu wa taala yónni ko amul benn ku xam ne andi nga beneen diina bu dul diina boo xam ne dafay jàmmal jullit yi te noonu itam la suñ mag ñi baax ñi doon dox amul ci kenn ci ñoom koo xam ne euh, nangu woon na doxal dara lu dul ne dafay yóbbu islaam bii ci kanam waaye dafay yóbbu jullit yi ci kanam waaye dafay yóbbu adduna bi yëpp ci kanam loolu nag lu ñu suñu sëriñ Sànq Kebe mii jàngal ci la bokk moo di kenn ku nekk ki nga séqal réeroo nga baal ko képp koo xam ne séqoo ngeen ba réeroo am yow nga baal ko lépp loo xam ne dafay indi koom te du indi jàmm nga bàyyi ko parce que loolu mooy nite loolu mooy jàmm parce que benn wéykat nee na darul mafasidi muqaddamun ala jalbi manaafi inda man qad aqula mu ne nga indi njëriñ li gën a am solo mooy nga dàq lépp luy lore waaye lépp luy yàq nga dàq ko balaa nga indi benn njëriñ sëriñ sëriñ bii nag da sëriñ Saïd Kébé yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na barsaqam nekk barsaqu Seyxuna Ahmadu Tijaani waaye barsaqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye barsaqu Mawlaana Muhammad ibnu isa bari parce que lim ñu doon jàngal mooy li yàlla subhanahu wa taala soxla ci jaam yi wa ma xalaqtul jinna wal insa ila li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma te jaamu yàlla googu mooy xam yàlla subhanahu wa taala ci loolu la jàmm di amee masalan maa daama nit ki xamul kan mooy yàlla du xam moom mbokkam mi mooy kan ci moom dafa amoon benn waay dafa gane ji mbokkam mu ñëw par exemple mu agsi mu ne asalaamaaleykum alaaji daawuda caam ne koo kan la man ma dem ci alaaji daawuda caam ne asalaamaaleykum mu ne aleykum salaam koo kan la ma ne ko daam sekk bu sumbaala la mu ne ma dëppal ñibi mu ne dëppal ñibi yow xamagula affaire bi ma dëpp ba ci déwén sama delsiwaat ba ma delsee ne asalaamu aleykum mu ne aleykum salaam koo kan la ma ne ko sëriñ daawuda caam la mu ne bisimilaa masalan boo yégee ne man maay yow yow yaay man boobu la jàmm di am waaye boo yégee ne yow beru nga fële man ma beru fële doo ma bëgg ba amul xel loolu doo ma bëggal jàmm te yàlla subhaanahu wa mi ngi jàngal ci alquran ne ku xam ne yow rey nga benn nit dafa mel ni rey nga julit yëpp dafa mel ni rey nga ni ñëpp waaye ku fexe ba benn nit dund yow dundal nga julit yëpp dundal nga ni ñëpp loolu mooy man nga yëg ne man maay yow yow itam nga yëg ne yow yaay man loolu moo taxoon waa ji ba mbokk ma ñëwee mu ne ko kan la mu ne ko man diw la mu ne ko dëppal dellu ndax yow xamaguloo affaire bi ca déwén sa ba mu ñëwee ba mu ne ko yow kan la daf ko jaar ca turu ki ko ki muy nuyu mu dog koy welcome ci biir këram ñu bokk waxtaan nekk fa ab diir dafa amoon ay niti tasawuf yu ànd ñi dem ba guddi mi ngi sedd lool xam ko jóg naan an sama malaan càngaay ga an sama malaan càngaay ga gars yi ñoom ñëpp dañoo jógandoor rek daal di ko poñe génne xalab ko ca biti ne ko gannaaw yow am nga sa malaan càngaay ak bopp yow mënoo bokk ci ñun mooy loo gisee réeroo di am da rayante di am ay fexeante di am da ngay ne yow yow nga man man laa déedéet ñun ñëpp benn jëmu lañ moo tax waa bi muy laajte malaan càngayam gaa yi dañu ko poñe rek jël moom malaan ma xalab leen ci biti ne ko génnal mën a bokk ci ñun te loolu am na fii sax ci Serekunda fii waaw gaa yoo xam ne dañuy dam ya xam na fi benn xam naa njawen njawen laa ko mën a tuddee walla njaayeen njaayeen moom su jëndee guru su fay toog ba mu yàgg mu dugal loxo bi ci poos bi daldi képpati dugalaat ci poos bi maanaam yëgut ne moom ñi fi nekk nii ñoom moom mooy ñoom ñoom mooy moom maanaam ñoom benn jëmm lañ moom dafa yëg ne jëmmi boppam la ñii ci leen nii kenn ku ne jëmm la ndeke am na ci ñoom ku koy seetlu ba mu gisee waa ji dugal poos bi dugal loxo bi ci poos bi génne guru gi daldi fell li ci des mu delloo ci poos bi moom mu dem ca jaaykatu guru ba ne ko jaay ma kilo guru ba mu ñëwee rek daldi jóor ne gaa yi yéey leen kenn ku ne jëlab doom kenn ku ne jëlal doom mu des moom itam mu jël ñi dem ba ci subaar mu dellu commencé waat de de képp ne dugal ci poos bi waa waaye dellu demaat ci jaaykatu guru ba ne jaay ma kilo guru mu ñëw jóor ñoom ñëpp ñëy ba ca fanu ñetteel ba ba mu ko defee waa ji jëndaat guru ñëw ca fanu ñeenteel ba moom ñëwee ba tey continuer ci ni mel waa ji ne ko gis nga ñun ñii ñëpp benn jëmm lañ su fekkee ne yow da nga am nguruso yu yooyu da denc ci sa poos bi buñ la gisati ci suñ place bi noonu lañ ko dàqee ca place ba mu jógee Koova parce que jullit yëpp waaye ni ñëpp dañoo war a nekk kenn koo xam ne li ñu bëgg ñun ñëpp ñun ñëpp la war a intéressé waaye ku xam ne da ngay dem sa mbiru bopp rek yow kenn yow bokkuloo ci jullit yaa ngi lor jullit mooy addis biñ tàmbalee woon yaa ngi lor jullit ndax li ngay def. arrangé wut nit ñi xam na koo tey bu fekkee ne fay ma dafa ne ku mar guru wala mu mar cigarette wala mu mar leneen yow nga amee ko ba pare de képp di dugal ci sa poos yow yëguloo ne moom mooy yow yow moom mooy yow yow yaay moom moo tax ba dew ma Amérique waaye boo demee ci téere bu ñuy wax laa taxsan da nga fekk mu ne danga dem ci Amérique foo xam ne da ñu gis ñi bind ñu ne yow yaay Amérique Amérique mooy yow ñu bind ko ci kaw mbedd mi pour que léegi soo gisee fu américain de loroo bu ko sa bakkan fekkee waaye foo xam ne itam gis nga amérique de loru te xaalis moo tax walla leneen moo tax loola bul ko nangu loolu nag soo demee ci téere dafa am ñu naan jazaïr ñoo ci man ci afrique fii ñu ne benn jazaïrien dafa dem turk feebar bet daanu ci mbedd mi ñu jël ko yóbbu ko hôpital bañ ko fajee ba mu wér ñi bind kayit wan ko ne ko yaa ngi war a fay junne ak ñaari téeméer ci seen xaalis moom ba mu làmbee poosam ba benn 25 masalan lu tolloog 25 comme ku ñu laajoon fii 1200 yow benn 25 moo nekk ci sa poos bi mu woo noos bi mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga génn ci mbedd mi soo fi gisee ku dëkk Jazaayir nga woowal ma ko waa ji génn rek xam nga léegi am na réew yu nekk nu ñuy soloo bi ñaari jasaayir de romb ci seen colaay la xamee ne ñii waa jasaayir la moo mu ne leen am na benn waaye boo xam ne jasaayir la dëkk mi ngi feebar tëdd fii ci hôpital bi moom ma waxoon ne ma génn su ma fi gisee ku dëkk jasaayir ma wawal ko ko kaa leen ngeen dem wuyu ko ñu ne ko lu ko jot mu ne dafa feebar de waaye fu mu ne nii alhamdulilah mi ngi am tene gars yi noonu lañ jaar ca dibi ba jënd yàpp wu bëri ak i banaana ak i ko te xamaguñ waa ji mooy kan ak lum leen di wooyee ba mu ñëw bañ ñëwee mu yëkkati këyit yi woon leen na leen man de dama fi war a fay junne ak ñaari téeméer te benn 25 moo nekk ci sama poos ma bëgg ngeen jàpp ci gars yi ne ko lekkaaleen lii ñi ngay dem te dikk bañ demee ba dikk fayal ko junne ak ñaari téeméer ba pare yëkkati aat beneen junne ak ñaari téeméer ne ko paase ko nga ñibbi loolu ñu ngi yëg ñoom ne ñoom ñëpp benn jëmm lañ waaye du ñaari jëmm su benn américain loroo fo benn jasaïr loro foofu jasaïr yëpp ñoo loru ñoo ñàkk seen mbokk ñoo ñàkk seen nit parce que itam mën ngaa jàpp ne kii amalu la njëriñ fekk amal na la njëriñ lu rëy loo xam ne xamuloo ko masalan léegi ki nga xam ne dafa dëkk ci réew mi ñu fexe ba mucc mun naa am ëllëg mu amal ñi loo njëriñ loo xam ne ñun réew mi yëpp danañ ci jëriñu réew mi yëpp danañ ci jëriñu waaye jullit yëpp danañ ci jëriñu masalan ni ma ko mën a misaalee dafa am benn waay dañ koo xeeb lool ci dëkk bi ba bu ñaan ndox sax duñ ko woo ngir ne moom lu tax ñu xeeb ko moo di moom benn jabar la amoon jabar ba dee na benn doom la am moog doom bi ñooy ànd rëb bi ci loolu la ñuy dund ñaari néeg lañu am bii góor gee jee bii doom yi moo jee tëdd ba xeeb nañ ko ci loolu ak colaay lu jagadi ba bu ñuy ñaan ndox sax duñ ko woo ñu ñaan ndox ñetti yoon yàlla tawut ca ñeenteel ba ba ñu ñaan ndox ñi daldi ñu seen ko mu génn di wër dara ci gannaaw këram xam ku ne ah ñun de suñ mbokk mii bu ñu ñaan ndox duñ koy woo gaa yi dañ koo jéppi bane ko demal nga wooyi ko maanaam ñoom daal ñoom jomm nañ di xooy ngóor sii nga xam ne tekkiwu dara xanaa moom mi dox ba di leen ko fàttali kay moom moo ko war a wooyi waaja ba mu ko wooxee ba mu ñëw ne gars yi li ngeen soxla ñu ko ndox lañ soxla te boo demee ci gannaaw këram diggante boppi bay boppi jahaat yéeg lëg yéeg bodom yéeg yooyu kaag yi mu ngi ko fa xalab loo rek lay dundee amul dara lu muy lekk li muy lekk yëpp lu muy jàpp ci àll bi la indi waaye du lu muy bay wala mu mën koo jënd fen ñu ne ku ñu daal ñetti yoon yoone nga ñii ñi ngi naan ndox waaye yàlla subhaanahu wa taala daal joxagul ñu ndox comme niñ ko bëggee mu ne daw leen dem ñibbi ku ci sa kër sori te gaawuloo da nga tawte ne yàlla ji jublu penku ne ne ko yàlla ji ndox lañ soxlo rek dënn wa départ ñi nga xam ne seen kër dafa sori yëpp tawte nañ kera lañ doog xam ne hee ndeke ñun kat ki ñu àndal fii nii ku sa rëkk ca yàlla la waaye ah ñun fooguñ ko woon moo tax yonent bi saa sallam mu ne rubba ashasa axbara si temray ne law aqsama ala allahi la abara bari na borom sagar yooyu gis mu fënd lool sagar ya tilim lool te bu dogoo yàlla def loola dafa am nag comme ni ko ustaas bi waxee am na ñoo xam ne weddi la yàlla bindee ñu dajee man ak moom ci benn barab fii ci Burfut dinaa mën a wax dëkk ba ndax wax dëgg yàlla ñoom defuñ ci dara ki ma àndat ñi nga maa ngi wax ak moom ne ko am na ñoo xam ne luñ luñ dogul loola yàlla def loola waa ji ne ma loolu amut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 waaye ñu delluwaat ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu dellu nuyuwaat leen beneen yoon nuyuwaat suñu sëriñ Mawlana Cheikh Bachir Saïd Omar Kebe al mu mel ni agsi na ci jotaay bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la wàcce sa wàccuwaay doonte lottu nañ si waaye di wax ne ñun ñëpp ñi bokk wax kàddu yi ne Maulana Cheikh Basir yàlla na fi yàgg lool lool te ànd ak wér Maulana Cheikh Basir yàlla na fi yàgg lool lool te ànd ak wér Maulana Cheikh Basir yàlla na fi yàgg lool lool te ànd ak wér sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la màggal di la wàcc sa wàccuwaay donte lottu nañ ci loolu yépp waaye itam ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool lool te ànd ak wir ala kulli comme nuñ koy waxee yàggam fi mooy suñu dund ñun kon yal na yàlla yàggal ko fi waaye noonu la ñu nayoo suñu papa Cheikh Ousmane Kebe nekk rakk si Maulana Serigne Saïd Omar noonu itam la ñu nuyu porte gi suñu papa Cheikh Babacar mu mel ni sëriñ bi yaa ngi fekk suñu papa Cheikh Oustaz Dame Seck si conférence bi si topic bi nga xam ne mooy euh, jàmm mu yaatal ko lool développe ko dugg ci ay bunt yu baree baree bari te gëm naa ne kàddu yépp toq na say noppu duñ ci jaaraat dañu koy delloo microphone bi mu tënk li des ci ay kàddoom su ko defee gannaaw teew nga te waxtu bi itam dem na timis lañuy dawali liñ bëggoon su nekkoon waxtu may nañu ko su suñu pappa Cheikh Dame pare donte juróomi minute la ñu jox suñu pappa Cheikh Pape Kayre mu somaraysal ñu wax ji waaye dafa mel ni waxtu mayut ñu ko léegi sëriñ bi agsi na teew na te timis léegi tey mu jot te nit ñi am na luñ bëgg a dégg ci moom am na message boo xamantee ni soxla nañ ko mu ubbilee ñu ko programme bi kon dañuy jox suñu papa Cheikh Babacar Cheikh Oustaz Dame Seck mu daane kàddoom su paree ñu jox sëriñ bi mu tënkal ñu kàddu yi suñu papa Cheikh Pape Kayre gannaaw buñ delloo ci kër gi ay Africa am na plateau boo xamante nii soxla nañ fi ay oustaz incha allahu rabbi nga pripia yow ak yeneen oustaz yi ngeen ñëw seen ñi nga xam ne ñoo des ci plateau bi incha allahu rabbi kon suñu papa Cheikh Oustaz Dame Seck lañuy ñu delloo microphone bi mu jekkali ay kàddoom tënk ko su ko su paree su paree ñu yóbbu microphone bi ci suñu sëriñ ñi ne ku amee lampi tant bi mu dimbale ñi mu taal ko dafa mel ni mu ngi commencé lëndëm kon Cheikh Dame bismillah asalaamualeykum wa rahmatullah sëriñ azeyid al ustaas zeyid mohamadul basir ibnu said kebe ñi ngi lay nuyu ak ñi nga àndat yépp di siyaare bu baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla may wér maye fan gudd bi jaay seyxina alxaaji Saïd bun Amar Kebe kon ñi ngi woon ci waxtaan boo xam ne euh, comme ni ngi ko sante woon rek te loolu lañu war a def ndax loolu lañu yàlla subhanahu wa taala jàngal yàlla fa ne innamal muminuuna allazina amanu billahi wa rasuli zaakaano maaw xala amrin jaamiun lam yasabu hatta yastasinu inna allazina yastasnuuna li baadi saani faasal liman sixta minhum wastaghfir lahum allah inna allaha ghafurur rahim yàlla mu ne ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu nekkee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu yollee ko dem doxi benn soxlo lu dul ne dañ koo ñaan ndigal taalibe balaa takk jabar dafa war a ñaan ndigal balaa samp kër dafa war a ñaan ndigal buñ ko digalee mu def loola lii nag ndigal lañ ci am jóge ko ci sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñooy lañ na bi ñi ko doon jéem a def yàlla mu ne ñi nga xam ne seen sëriñ seen yonent digal na leen euh, ñi def la leen seen sëriñ digal wala la seen yonent digal ñooñe ñooy ñi yàlla mu ne ko bu la gaa ñaanee ndigal seetal ku la neex nga ko demal ku la neex nga ko toogal koo toogal dafa war a toog koo demal dafa war a dem moo tax Baay Ñas radiyallahu anhu mu ne wala tuxaalifu walaw baana fasaadu ra'yi fa kun dawaaman sattisa sa sëriñ bul wuuteeg moom bul wuuteeg moom donte yow da ngaa gis moom lim la wax nii dafa dëppoowut ak yoon dafa dëppoowut ak njub parce que loolu daloon na sahaaba yi radiallahu anhum yonent bi saai sallam d'accord ak gaa yi ci képp koo xam ne dafa dawee makkatal mukarama dem dugg ci diine islam ca madinatul munawara yéeféer yi xam nañ sañ-sañu jëli ko delloosi ko makk waaye képp ko dawee na war a dem makka julli ñoom xamuñ sañ-sañ pour jëli ko gaa yi daal pour ñoom loolu xalaat boobu jubut ñu toog bis xam benn booy bu daw jee ko makkatal mukarama ñëw madinatul du dugg ci diine islaam ñaari ponkal jee ko makkatal mukarama ñëw jël si ko bam mu ñëwee yonent bi ne ko danga am pour dellu makkatal mukarama mu ne moom du dem Seydina Omar koy puus jaasi ji di ko puus jaasi ji pour mu jël ko caw gaa yi léegi jaasi ji ñu dee su ko defee yonent bi du ci yëg dara waaye waa ji nanguwut gaa yi jël ko yóbbu ko xeew ko jéng loxo yi nii ba pare ñoom war fas moom muy dox gaa yi war fas topp ci kawam gaa yi dem ba sonn bon moom muy dox nu mel moom mi waroon fa moom miy dox ñoom ñi war fas ñoom sonn nañ moom nu may mel moom dafay de gaa yi ne fa ñuy xendal mu xendal ak ñoom ne waaye tekki leen ma yéen itam yéen ñaari nga amee ku ne fas ku ne amee jaasi man xamoo ma dara du ngeen ma xetti tekki ma itam ma noppalu manuma leen di të gaa yi ne awaaw ah, loolu kay dëggal ñu daal di ko tekki mu toog nag ñuy waxtaan ba mu yàgg kenn ka nelaw xam nga léegi kenn des kenn kaa ngi ci jaasi ji danaa maatoo ko yagalaatu ba mu yàgg mu ne ko sa jaasi ji ñëw na ma seet mu ne ko yalaaw jox ko ko rek jaasi ji dal ca boobu taj mu dee léegi kii nelaw moom yëgugu dara moom laaxira la xendoo la fanaan la xendal mottali kenn dalam la léegi waa ji dellu Madinatu Munawwara yonti mu ne ko dëppal nga dellu fii doo fi ne mu dem toog ci àll ba xam na ñaari fas ñaari jaasi ponkalam góor xam ñaari fas ñaari jaasi looy ragalati xanaa gaynde sax boo ko gisee boo ñemee ngeen def léegi ku dawee màkkatal mu karama ci moom ngay xem bañ xam juróom-ñaari nit xam na ñaari jaas ñaari fas ak juróom-ñaari nit léegi ku jee njëkk mu jee ko màkkatal mu karama jëm feneen ñi katan la nangu la ngeen xamee ñëw toog ci àll bi ñu dem moom yàgg waa màkka ñooy yónnee ci yónnent bi sallallahu alayhi ne ko gaa yooyu ne ci àll bi da say booy mu leen dee seen booy lañ comme noonu la ko benn kilifa ci Sénégal waxoon ne nguuru Sénégal mu ne ko dimbali ñi ci euh, booy sa sa sa booy yi mu ne déet man sama booy yi ña ngi ca toole yéen seen booy yi ñëw te ca dëkk ba léegi noonu la gaa yi nangu gaa yi dem Madina maanaam yéeféer yi nangu nañ léegi boo yooyu ne ci àll bi dem Madina toog fa nekk ay julit léegi ndax la yonent bi waxoon dëgguwut ah ñoom foogoon ne yonent bi xalaatam baaxut fekk xalaat ba moo baax moo tax Baay Ñas mu ne wala tuxalifu walaw baana fasaadu rax yi fakkun dawaaman sattisa bul wuteeg sa sëriñ donte xalaatam fa yàqoog yow kon sëñ bi ñu ngi àggali suñu wax je dama doon nettali ma ne yonent bi saai sallam fa waxoon ne kam min assansa arbara si timray ni la aqsama ala allahi la abara bari na borom sagar yu fënd yu tilim waa ji tilim sagaram yu tilim te bu ne yàlla defal mu def léegi nag ma nettali ko fii burfut benn booy bu xamadi mu ne ma loolu amut léegi waxal ma hadis boobu kan moo ko solo ma ne fa ma ko ma ne ko fa ma gis ñu bind ko rawahu tayalis lañ def fekk am na ustaas bu toog ñun ndek ñun ñëpp moo ñu raw te ñun xamuñ ne ustaas la mu ne mam kii weddi mu ne mam de rawaxu teyaali si mosu koy dégg waaye ne ko dangaa jàngut man léegi góor gi nga xam ne ñun moom nañu fekk ñun foogoon nañ ne moom moom xamul sax dara ndeke moom ñun ñëpp moo ñu raw mu ne ko dangaa jàngut moo tax ngay weddi rawaxu teyaali si boo déggee teyaali si mooy Abu Daawud mu dog may xam ne ci téere boo ko gis ma ne ko doomu xaraam ji su ma la ko waxee nga dee du ma la ko wax mukk léegi bëri na koo xam ne tey ñu ñu koy xeeb ngir bëgg ko xañ jàmm fekk bu amul jàmm duñu am jàmm masalan léegi ku bëgg jàmm rek képp da nga koy xéene bépp nit waaye lépp lu doxul nit sax parce que yàlla subhanahu wa taala ba muy jàngale ca suratu Shuara yi de wax naan ba naan tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ne tàndarma seen bàjjan kon gannaaw suñ bàjjan la waruñ koy gor su meññeekee war nañ caa mën a sàkk lekk waaye duñ ko gor moo tax ba yàlla di wax Moussa alayhi salaatu wasalaam ne ko maa tilka bi yaminika yaa Moussa qaala yaa asaaya atawakku alayha wa awsu biha ala qanami wa lii fi amaari min uxra maanaam lii de aw xeet la woo xam ne dama cee sukkandiku waaye itam dama cee fàkkal bàccal sama sama nag sama nag yeeg sama bëy ak sama xar yi pour ñu am ay xob yu ñu lekk kon duñ gor moo tax ma oyo foore nax nañu mu ne buñ yàq xàll bi waaye yàlla jàngale xoon na ne booy booy booy sàmm bul dagg garab bul gor garab bi boo ko goree leen déwén doo gor waaye da ngay fàq da da ngay fàq kon léegi bëri na koy xeeb soo ko mayut jàmm doo ko am kon li ma ko waxee woon mooy képp koo xam ne am na loo yëlif yow yaa gën a soxla jàmm dalee ko ci président ba ki gën a suuf ci réew mi waaye ku la gën a suufee gën la ku la gën a kawee daraja gën laay soxla jàmm gën la ko war a bëgg su ko xañee kenn ci nit ñi yàlla dana koo xañ ndax parce que jaam yi jaamu yàlla subhanahu wa taala lañ kon maa ngi bañ a guddal euh, di wax rek ne liñ ñuy waxtaan la woon suñ ko mënut dañ doon jéem waaw pour rek maa lépp loo xam ne day tax suñ Gambia gii xam jàmmi kese la ko dalee ca A ba Z ñëpp am jàmm bu kenn wax ne diw mi suma ma ko xañee jàmm duma wàññi dara ah kay parce que yàlla mi moom mbir mi xam na fu muy jaar ba xañ la jàmm maanaam dafa amoon benn buur dafa wéeroog waa ji jàpp na ne waa jii de mën na koo sànk tamam du sànku fu mu gis kum fu mu gis kum yaakaar daf laa yëkkati dara jox la ne ñaanal ma ma jàpp diw ji moom itam kum gis kum kum yaakaar yëkkati dara jox la ne la ñaanal ma mucc ci buur ñaari ñaan yëpp nangu nañ ndax loolu mën na ñaari ñaan yëpp nangu nañ waa ji doon ñaan lu mucc ci buur ñaanam ngi nangu na moom moo ëpp chance kii wax jàpp ma jàpp diw yàlla woo yàlla soldaar yi wari nañ jàpp waaje xeew ko indi teg buur na haa lii de foogu la ko woon foogu la ne danaa la jàpp de mu ne ko haa may na yàgg naa mucc ci yàgg naa ñaan mucc ci yow de léegi nag waaje teg nañ ko xam nga booba naar yi bu ñu rey nit dañuy jël benn bant foofu doo xam ngi teg ko ci nii dóor doo kii fi ba dali fële léegi fu ne loolu yëpp def nañ ko pour fu ne jël jaas yi rek moo des waa ji ci ci buntu kër gi jàkka jàng ci buntu kër gi ñu noddu ñu noddu bi ñu noddee buur ne bàyyi leen ko nii mu mu sukkaale file ñu dem julli ji te dikk te am na ko julli koo xam ne xeet la indaale te buur a ko tax a ba buur ne allah ko ba sëgg siggi sopp jëwi rek ba mooy siggi rek xeet ba dal tel ca bopp buur buur daanu dee léegi buur la waa ji ak problème ndax waa ji lim ñaanoon amut ko buur moo jàpp waa ji moom la ñaanoon waa ji lim doon ñaan la mooy mucc ci buur moom itam ñaanam nga nangu na kii jàpp na waa ji mu a jàpp waaye mënu koo rey kii moom itam mucc la ñaan yàlla dana ko musal léegi biñ bi biñ dóoree buur ñaari xeet mu dee léegi ñu julli ba pare ñëw ñu ne ah lu mu joteeg buur kenn xamul lu mu joteeg buur ñu ne ah, xeewi leen ko mu dem ñu xeewi ko mu dem kon mucc na ci buur buurit lam doon ñaan xam na ko waaye xamulu ko njëriñ kon ñun ñëpp kenn ku nekk lii tànga doo jullit waaye lii tànga doo nit mooy nga xamal jàmm nit ñëpp waaw ci ñëpp noo manee ki manee lii na musal ñëpp ki manee lale na musal ñëpp kon maa ngi balu xaq bu baax di nuyu suñu sëriñ euh, wa ma uridu ila al islam wa ma euh, dara lu dul wax ko niñ ma ko sante woon waaye jubluhuma ci gaaral kenn wala lenn waaye li ma bëggoon moo di ñun ñëpp nañ xam ne benn jëmm lañ su jëmm bi feebaree su tànk feebaree jëmm ji dootul man dara su nopp bi feebaree jëmm ji dootul man dara su bët bi yàqoo wala ma feebar jëmm ji dootul man dara comme ni ko hadis bi waxee masalul muminina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa taatufihim misla al jasadi isa staka min udun tadaa saahiru jasadi bi saari wal ama julli yëpp ñu ngi benn jëmm lañ jëmm ji su loxo méttee jëmm ji yëpp yëg ko waaye su tànk méttee jëmm ji yëpp yëg ko kon ñu ngi balu àq bu baax di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 jërëjëf sahidu la ilaha illa la ilaha illa allah la la la ilaha illa la ilaha illa allah la ilaha Seex Jamal na yu nañu ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jërëjëf sahidu la ilaha illallah la ilaha illallah يا رب الجليل لا إلا الله لا إله دق دق يا رب الجليل لا إله باي ساين كبه نون ديا نون لا إله bay sayin kebe ñun de yaa ñu nandal la ilaa bay sayin kebe ñun de yaa ñu nandal la ilaa bay sayin kebe ñun de yaa ñu nandal la ilaa Seex Basiir kebe ñun de yaa ñu nandal la ilaa Seex Basiir Kebe ñoo ngi lay siyaare la ilaha Seex Ablaay dëgg dëgg Yàlla Rabbul Jaliil la yàlla mooy xanaan yàlla la mooy xanaan yàlla la mooy xanaan yàlla mooy yàlla mooy xanaan yàlla mooy manaanu la ilaa dëgg dëgg waa loola nu naane la ilaa bay sayin kebe waa longa nu jasbo la ilaa Seex Basiir kebe ñoo ngi lay siyaare la ilaa Seex Basiir Kebe ñoo ngi lay siyaare la ilaa dëgg dëgg góor gi raw na gaaña la ilaa la ilaa jërëjëf Seex Ibrahima Kebe ñu ngi lay nuyu di la ziyaar yow di la wàcce sa wàccuwaay jërëjëf si sikar soosu mu mel ni suñu waa kër maam ñoo teew si ci jotaay bi di waa kër seex imaam kabir bari sahibul fuyu daati rabaniya ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàccee seen wàccuwaay suñu papa Cheikh Dame Seck jërëjëf conférence bi macha allah mun naa wax ne liñ ci fogoon am nañ lu ëpp loolu yal na yàlla yokk la fan ak wér comme niñ ko waxee woon rekk boroom xam-xam bu mag la waaye ku yàlla baaxee la wax dëgg ñu ngi lay njaaraamal bu baax du ñu ñëwaat ci sa wax dañ koy bàyyee sëriñ bi mu mel ni président nu laaj na suñu papa cheikh oustaz Dame Seck ah cheikh oustaz Daouda ñaari minit lañ koy may mu ilxa li nga xamante ni moom lañ jàng ci ay kaamil ak dogi ñaan yi nga xamante ni jàng nañ ko jox ko laaj na bi moom muy président bi moom la ñuy jox kàddu gi ci ñaari minutes mu sànni kàddu yooyu sëriñ bi dégg ko su paree ñu jël microphone bi jébbal ko sëriñ bi ndax nit ñi bëgg nañu dégg ci moom te mel na ni timis gi jot na ba pare kon ah, présidentu laaj na bismillah ñaari minute yi moom mbaar hmm. wa ala alihi wa alhudur assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhum ah, mi ñu ngi leen ay nuyu ci baat bii ma wax muy assalaamu aleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyo bi suñu sang ki nga xam ne moo jiite jataay bi tey di Cheikh Bachir Omar Kebe ayyadahu llah wa hafisa euh, di nuyu tamit ki nga xam ne tey moo jóge ko ca bu màgg ba di doomi saaxibul fuyoodaati rabbaniya Mouhamad Kabir Bari fële ca weli nga war waalo ak ñim àndal ñëpp di leen ay ndokkele ñoom ñëpp ci bés bi di leen ay bismillah Ah, mu mel ni seex eh, kii nga jéggal ma rek ñaari minute dollil ma ci beneen ñaari minit su ko defee lii nga xam ne moom la seex Ibrahima wax ah, maa ko sàkk woon ci moom ndax lii dañ ko baaxa woon doon ko def di ko jëlee ci sa baay bu tedd bi nga xam ne ah, yërmande la ñeexal jaami yàlla yërmande la ñeexal aduna yërmande la ñeexal mbindeef yi yëpp moo ñi daan sant bu gàmmu jubloo ñi def ay ñaan ñaanal àdduna bi yëpp rawatina julit ñi bu gàmmo gi jotee bésu gàmmo gi ñu ubbee gàmmo gi tamit jàng alquran ak i ñaan ren nag ñi ci àll bi bëggoon cee bokk bëggoon ci barkelu ñu ne ñi ñi laaj ñun lañ na bi ñi laaj seex bi ndax loolu ànd na ci mu ne rafet na lool su ko defee ñooñu it nag jàngoon ay kaamil jàngoon it defoon ay salaatul fatiha ay basmala ak yu demee ay ñaan lu mel ni que ay yaasin ñi yónnee woon ñu ko nag loolu nag ci gàttal moom liñ tënkoon ni ñi bëggoon leen ko jottali xam naa sax ah, benn bi rek doyoon na waaye nag lu bari moom ci yàlla moom du doy waaw ah, tabaarkalla kon ah, nii la demee liñ jotoon a jot ci ñi nga xam ne jot nañ ko def xam naa sax am nañ ñoo xam ne def nañ ko waaye indiwuñ seen seen lim ñi njëkkee kër seen maram Ah, seen muqadam di Cheikh Dame sàll jànga nañ ci ay kaamil lu mat juróom-ñaar salaatul faate jàng nañ ci juróom-ñetti téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak juróom-ñeent ak ñaar téeméer ñi jàng ci basmala di bismillahi rahmaani rahim lu mat ñeenti junne gaana ah, ah, Ghana seen muqadam di Cheikh Moustapha Kebe moom moog waa këram jàng nañ juróomi kaamil sang euh, sangab almuqaddam cheikh malik jon jàng nañ juróomi kaamil ci salaatul faatiha jàng téeméeri junne muy one am naa maa ngi wax wolof waaye am na ñu déggut wolof yooyu baa ñaaka imaam euh, Mohamed Diop ak imaam Ibrahima Diagne euh, jiite woon daara ji ñi jàng tey jii nii juróom ñaari kaamil mooy yi nga xam ne moom lañ baaxoo woon doon ko def at mu jot Ah, Bansang almuqaddam qadi Mouhamed Lamine lamin soose it jàng nañ foofu salatul fatiha one hundred thousand six and muy téeméeri junne ak juróom benn ak juróom ñeenti téeméer ah, nga dem kër Ousmane Boy ñoom nag dañ ma yónnee ñu ne liñ jàng dañ ci dolli ah, li kër maram jàng ak li nga xam ne moom la euh, Assane Assane Diagne jàng ci ay kaamil euh, bañ tudd naa kër seen maram be pare waaye dañuy jël seen limba dolli ko ci li waa kër Ousmane booy jàng ak euh, Assane Diagne mu jox ñi lim bii waaw foog naa bëri na 24 26 millions 514 thousand and ñaar fukk ñaar fukki million ak juróom benn ak juróomi téeméeri junne ak fukk ak ak juróom benn téeméer loolu lañ jàng ci salaatul fatiha alquranul karim ñi jàng ci juróom fukki kaamil ak ñett albasmala muy bismillahi rahmaani rahim ñeenti junneyi bismillahi rahmaani rahim yaasin ñi jàng ci ñeent fukki yaasin ak benn naka noonu Assane Diagne lim bi ci la bokk Pape Kayre fële ci Koungheul ah, di muqaddam ñoom it jàng nañ juróom ñetti kaamil ak téeméeri yaasin ak ñaar fukk ci ay yaasin ko defee lii daal liñ jotoona karbat ci e, këyit ñu noon ñu jottali ko ndax lii liñ dee ubbee gàmmo gi at mu jot tabaarkalla ren nag yaatu na ba daj ci gox bu nekk kon sëñ bi e, lii liñ noon ma joxe ko ci ñaari minute mbaa romboo ma salaamaaleykum waa sëñ daam Seck moom it mu ne am na ñaari kaamil barakallah am na ñeneen ñu am waaye jotuñu andi seen liñ jàng daal yooyu yëpp ñu ngi ko def rek pour naylu bi am jàmm pour aduna bi ñëpp am jàmm rawatina nag jullit ñi looloo tax ñi jàng ñaan yile ene ko ñëpp fii nag xasatan fii nii muy waa naylu bi ak waa nakalaati fële euh, faydu bi jógee ko di Wélingara Waalo tabaar fakalla kon Cheikh Ibrahim bon micro bango jërëjëf suñu pàppa cheikh oustaz dawda Thiam jërëjëf si kàddu yooyu ak si jotal bi am na solo trop dafa mel ni ñaan yooyu rekk suñ si yemoon ñu tas dem ñibbi suñu guddi sànkuwut kon yal na yàlla nangu lépp jotal ko suñu sëriñ di Maulana Sëriñ Saïd Umar Kebbe ak fu roxoom munta nekk mu mel ni itam jot nañ message léegi ci suñu beneen mbokku taalibe di Cheikh Njaga Njaay nekk fële sa xataar mu ne moom tam jàng na ñaari kaamil hadiyal ko Maulana Sëriñ Saïd Umar Kebbe kon dafa mel ni léegi sëriñ bi agsi na moom la ñu jébbal kàddu gi mu waxtaan ak mbooloo mi topic bi nga xam ne moom la suñu papa Cheikh Oustaz Dame Seck doon waxtaanee muy jàmm xam naa ne développe na ko yaatal ko lool sëriñ baa ngi woon ci kër gi waaye dégg na kàddu yi incha allah moom lañuy jox kàddu gi mu waxtaan ak mbokki taalibe yi incha allahu rabbi الغيب على فير وقلب أبصروا يا لقومنا بالسنا ورقائب محمد لمن ألفي rin waqaale bi Cheikh Basir Kebe aziro waaw waaw bisana Cheikh Basir la nuy wayal jaa fiina si fadlakum wala fil قد فقرتم بأحمد زين كل المطالب الزيرو محمد لمن ألف رن وقالب محمد لمن أبزيرو waaw waaw bijana seex basiir la nuy wayal fax wa kalla badru nuuruhu taalion xayra qaibi xad safartum xadijata بجليل المواهب أنزيرا محمد لمن ألف رن وقالب سخب سركب أنزيرا واو واو jóg leen taxaw màggal Mamadou Lamine bi fata hazimi lazi malo min manasibi jamaa allahu sam lakum faxwa rabbul matalibe ab ziro محمد لمن على فير الوقالب محمد لمن أبزيرا واو واو بالزنا سخ بسير لاني ويا الأحمد سيد الورى خير ماس وراكبه فعليه صلاة ما زار سار وراكب أبزيرا محمد لمن ألف رل وقالب سخب سركب أبزيرا واو واو بالسنة Seex Basiir la nuy wayal Ahmada Hamid lazi qasana Ahmad alwara Ahmad alxalqi birrida أكرم الخلق بالقرآن الزيرو محمد لمن على في ريل وقالب محمد لمن واو بالسنا رقائبي assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu booloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen santit di leen gërëm di ñaan yàlla niñ ko commencé ñu yeggalee ko ko ci jàmm ni ñëwee ci jàmm ñëpp dellu ci jàmm euh, timis gi dafa mel ni fukki minit ak ñaar moo ci des kàddu gi dañ koy jébbal ki nga xam ne moo fi wuutu xalifa bi muy xalifa cheikh imam muy cheikh Jamal imam Bari Cheikh Abdullahi Bari toogal ko fii te dañ bugg mbir yépp di daw ci nizaam su ko defee muy yëkkati ay kàddu fu mu yem fii ak timis gi mu ñaanal mbooloo mi suñ jullee ñu tasaaroo ba dellu siwaat ci guddi suñ toppee suñ bugg-bugg suñu waxtu wi mayut ñu ko su ko defee ñu fexe daw ci waxtu rek nizaam bi mun a tegu ci yoon ñu jël kàddu gi jox ko sang bi kàddu yum ci sànni lum ñu ñaanal ñu jël loolu suñ jullee ñu daw dellu kër ga pour gàmm gi bu mu ba génn guddi gi muñ dafay rafetal lépp wassalaamu aleykum wa kaamil euh, sang bi ñun de dafa mel ni dañu wedem li ñu doon gënal dey ñu barkeelu ci say kàddu incha allah euh, jaaxaloon na ma nag waaye sooy jëflante ku mat te yow matuloo mu mottali la rek dama xam ne su ma jëlee fii ak timis gi wax dëgg yàlla salaamaaleykum bu jot sax xajut fi te suñ ko jëlee julli jot mu ñàkk wax loolu du respect te suñ ko joxee mu wax lu néew nga jox ko sa kilifa loolu du respect kay fa tan naka ngay def ba mucc dañuy fexe di jéem di bës suñuy xol jéem a not suñu bëgg-bëgg ñu daw ànd ak waxtu wi dundin bi yëpp wooyof ñi bugg a waxtaan ñiñ bugg a waxtaan loo bari nañ waaye waxtu wi moo ko mayewut su jotee rek ngeen wax fu yem rek ñu yemale ko foofu te doyloo ko ci lañuy ñuy jaaree mun a respect waxtu waaye suñ yoon su nekkul ci waxtu waxtu du nekk yoonam du nekk su ñun kon timis gi su jotee ñu ñaan lante ñu tasaaroo ñépp dem noppaliku ji ñu teel a reer teel a dellu ñu gàmm ñi war gàmm-gàmm ñi war a déglu déglu ñun ñépp ñu bokk njëriñ li sëñ daam jërëjëf ci sa waxtaan bi waxtaan bi am na solo luy indi jàmm yomb na de waaye jëf ko moo jafe luy indi jàmm dama ne yomb na waaye jëf ko moo jafe fu ngay commencé loo bokk ak nit ki jëlal sa wàll bàyyi ko wàllam loo bokk ak nit ki jëlal sa wàll bàyyee ko wàllam mu jeex tàkk yàlla daf ñu jàngal waaye nag nañ bàyyi xel ne alquran nabil Moustapha lañ ko wàccee ci moom mu wax ci ak ñun waxin boo xam ne bu dal xel la dafa mel ni dañ dul bàyyi al bàyyi xel alquran de soo demee ci jeex lu baqara rabbana laa tuaaxidna in siinaa muy benn aw axtaanaa muy ñaar gis nga buñ ci wax rekk yàlla ne topp ma leen ci dara yàlla ñu ngi lay ñaan bul ñu jàppee loo xam ne dañ fàtte def ko yonent bi yàlla ne ko jéggal naa la jéggal naa say lu ñu fàtte def ko aw axtaanaa walla loo xam ne dañ juum def ko yàlla ne jéggal naa ko aw amit naa na nekkul fa ci alxuraan de wala suñ ko tayee def ko dëgg-dëgg nekkul ci alquran kon nit ki loo fàtte def ko yàlla jéggal na la doomu aadama su nit fàttee def la dara war nga koo mën a jéggal dina jur jàmm ci kër gi su ëllëgee nga bàyyi xel ne wax dëgg yàlla yow soo fàttee def ko nang ko jéggalee woon moom it mu jéggalee la ko jàmm na ñooy mu ne bul ñu jàppee suñu juumee kon gis nga yàlla bi ñuy wax yàlla yàlla yàlla yàlla taxawut ak jëmmam de nit kese moo fi nekk li doy waar mooy yàlla dañ ne nit moo ko doon ci kaw suuf si maa ngi dugg foo xam ne sax bugguma faa dugg parce que loolu sori la ñi jàngale wax nañu ko jàngkat yi wax nañ ko waaye dama ne ndax mos nañ ñoo wax ne lii la nit doon ne yàlla ñun luñ fi nekke Cheikh Moustapha du dañuy togg di lekk ndax yàlla dafay togg ba yàkk di lekk du dañuy takk jabar ndax dafay takk yi ñuy def deful ci benn kon lan lañ ko doon ne sant yàlla loolu sax ñuy def noonu doon nañ ci yàlla de yàlla julliwut wooru génnewut azaka ajut màkk kon sant yàlla ñu yemale ko foofu ñu ñaan yàlla dem julli ji ñu daw delluwaat ci kër yi su waxtu wi jotee ñu dellu si suñu sàmmut waxtu wi waxtu wi duñu sàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu xalifa bi ñu ngi lay jéggalu bu baax waaye ndigal la nag jërëjëf waaw kay jërëjëf suñu sëriñ Maulana Cheikh Bachir Saïd Oumar Kebbe macha allah kaddu yi gàtt na waaye njëriñ la ëmb ba fees dell kon jërëjëf kon ñu dem julli ji ñi piripiya guddi gi xam ne comme ni ko sëriñ bi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko moom ñu dem julli ji suñ paree ñu dellu si dal yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci waañ yi ñu dimbale nit yi ñu gaaw a reer ndax ñu mën a teel a ñëw ci tànt bi incha allahu rabbi kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi mu ngi noonu kàddu sëriñ bi. Euh, ginnaaw ba nga xamee ni yëkkati na fi ay kaddu yu ama am euh, solo su ko defee euh, ñu koy xam ne dinañu ko jàngat léegi léegi laata ñuy rek daal di tëj yéen a ngi seetaan ay Africa TV ngeen gis ne cérémonie officielle bi sëriñ bi di ki nga xam ne nag mooy Cheikh Mohamed Bassir Kebe suñu sëriñ suñu xalifa daal na yëkkati ay kàddu ngëneel ñu ko doon xaar nag ci moom tey tamit ñu bari tax. ñu doon déglu kàddu yoo xam ne nam namm nañ koo déglu euh, ci moom su ko defee rek ñu ngi fi toog ak ba tey ak euh, sëñ euh, Moustapha Cissé ak tamit sëñ Ibrahima Touré laata ñuy rek daal di tëj bu benn fukki minute sax dinañ jàngat li nga xam ne mooy kàddu ngëneel li nga xam ne kii di sunu sëriñ suñu xalifa yëkkati na ko di Maolana Mouhamed Bassir moom mi nga xamee ni moom mooy suñu xalif yëkkati na kàddu yoo xam ne jàngat buñ ci njëkk a jàngat laata mooy ñëw ci Mouhamed sëñ sëñ Moustapha damay sëñ Mohamed euh, gis nañ euh, li nga xam ne mooy cëral bi nga xam ne euh, cëral na ko ki nga xam ne mooy xalifa bi te xam nga ni ki nga xam ne mooy mbirum cër tey jii gis nañ ñu bari euh, ci àddina euh, boo nekkee ci fi nga xam ne ñëpp yow la ñuy xool ñëpp yow la ñuy roy dafay da ngay jég bëgg a lépp waaye gis nañ li nga xam ne moom la def mu cëral euh, ki nga xam ne mën nañoo wax ne foofee la lépp daal di xewee mu daal di ko cëral ci beneen bi nga xam ne seetlu nañ ko fonk gi mu fonk waxtu julli ba nga gis ne nee na waxtaan wi fu julli gi ñëwee rek dañ ko fiy dagg dem julli ji su ko defee ñu doog a def leneen lu ñuy def gis nga foofu jàngal nañu fi li nga xam ne mooy fonk li di waxtu julli ci foofu itam daal dina fi ñëwaat jàngalaat ñu li nga xam ne mooy euh, nan la nit di mën a rek daal di woyofee ak woyof tey jii boo ñu doon jàngal kàddu njariñ yi nga xam ne sëriñ bi euh, daal dina ko yëkkati fii euh, mu doon kàddu yu gàtt waaye doon kàddu yu am solo lool lool ba nga xam ne sax kenn mënu su ko daal di takk loolu sëñ Ibrahima boo ko doon jàngat nan nga koy jàngatee. mu ngi su ko defee euh, ngeen ñu toppatool ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima euh, microphone am bi ñu doog ko euh, ñu daal di rek jàll ci. Euh, Serigne Moustapha moom itam su ko defee damay euh, lay jox rek sama mic bi tey ji nan ngay jàngatee kàddu Serigne bi euh, ci bi nga xamee ni wane na ko woyof gu mu wane ak cër gi nga xam ne nangu na koo cërale maanaam jëlul lépp rek ak i moo ko ak itam fonk waxtu julli gi nga xamee ni Serigne bi fonk na ko waxtu julli ndax gis nga waxtaan wi dafa rek door waaye bi ñu noddee rek ci la daal di yamale foofu mbir mi daal di jublu dem ca jàkka ja ak li nga xam ne wane na ko ak it baayam ba di rek ki nga xam ne mooy Maolana Cheikh ki nga xam ne moo di Sakhid Kebe euh, loolu mooy jàngatalam ci askan wi tey ji moom it mu daal di koy waat ndax yaa ngi doon wax sànq ne moom du rek wax yam ci waaye day jëfee tey jii nan nga koy jàngate sëñ Moustapha aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sallam ni ñu jàngatee loolu xam naa a tënk bi borom xam-xam bu mag bu dee ci wàllu julli la soo gestoo nga xool jumaa ju toll nii waaye juram samp ko fi muy alal ju dul jeex ak ni mu fonkee waaye juram ni waaye juram fonkee Seydi Cheikh Mouhamadul Kabir kooku num sonke fonkee Maulana Cheikh na Tijaani kooku num fonkee maamam yonent bi sallallahu alayhi ngay xam ne seen tànk ci alquran ak sunna rek lañ koy teg moo waral time bi jot ñu bàyyi lu def yépp dem joxe julli gi nga xam ne moom la ñu borom subhanahu wa taala sant ndax borom bi yonent bi wa sallam nee na assalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad haddama diin nee na sallallahu alayhi wa sallam julli mooy kenug diina ku ko taxawal taxawal nga diina waaye ku ko bàyyi bu diine ji màbbee yow màbbu kon julli doonul loo xam ne Maulana Seydi saayi daf ko càmmo yoon wala di ko fooyentoo waxuma la de yéexee waxtu loolu sax du ko def kon Maulana Seydi Bachir al Khalifa mi nga xam ne mooy mooy kuutalam du fooyentoo julli sa kàddu ko yéexee Seydina Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu wax nga ci oyofam moom Seydil Bachir al Khalifa ci xam-xamam bu bëri ba Seydina Omar ibnu Xataab ba mu nekkee amirul mominin dafa doonoon koo xam ne ku oyof la woon dañ ko daan fekk am na buur yu ko seet si woon ne amirul mominin lay laajte ñu ne ko moo tëdd na le si suuf mu ne déedéet mënut a nangu loolu Omar ibn Khattab nga xam ne mooy amirul mominin moo jiite ñëpp mu fekk ko kooku war a tëdd ci suuf amul kenn koo xam ne danga nga koy gaat te ñoom buur yi ñemewuñee wéet fenn two minutes te du ne dafa am ñu leen di gaat mu ne moom loolu mënu koy nangu est-ce que ndeke islam mooy diinaay dëgg ku ci dugg am nga kóolute Seydina Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu moomu dañu ko rey si julli suba am kon koo xam ne mosu lay faat waxtu mosu la koy bàyyi mosu la koy caaxaanee ba keroog bañ koy rey boobu mooy amirul muminin julli suba ci la ko fekk ba mu kabaree taxaw na defer leen sappe yi ñu defer sappe yi ba sappe bi jub mu daldi kabar ba mu kabeere kabaree ku ñuy wax fayros ñii na aboo loolu ata daldi na ko paaka boo xam ne ñaari ñaw ko la xamee ñii ñaari eh, ñaari bopp dóor ko ko ci biiram bi Seydina Omar ibnu Xattaab faalewut ko mu ngi ci julli gi mu dellu ko ko jamaat beneen yoon ci biiram bi si la Seydina Omar ibnu Xattaab daal di ne xaj bi lekk na ma daanu ci suuf muy bis bu rëy Muhammad bis boo xam ne islam du ko fàtte ba ilaa yawmi diini seydina omar amirul muminin nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf noon omar ibnu xataab seytaane sax ñemewu ko mbedd mu mu jaar ñeen fukki fan seytaane du fa jaar ku mel noonu ñu ñàkk ko ci kaw julli gum doon julli benn noon daal di ko yoot dóor ko paaka ci biiram bi bënn biiram mu daal di daanu ba mu daanoo li ko gën a intéressé mooy seetal leen ma ndax ku ma def jëf ji jullit la wala du jullit ñu ne ko kooku majoos la muy aboloo laata mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ba nga xamee ne yàlla jaaralewul jëf ju ñaaw ji si loxo koo xam ne ab jullit la daldi ne ana abdurahman ibnu awf sahaaba la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko warlu loon aljanna te mu ngi dund bokk ci fukk ñi nga xam ne hashara al mubassarina bil janna mu ne ana Abdurahman ibnu Awf mu ne ko maa ngi nii mu ne ko wax leen ko na ko mu ñëw mottali julli gi Mohamed kere bis bu doy waar la wax leen ko na ko mu ñëw mottali julli gi kooku ñëw taxaw si kanam mbooloo mi mottali julli gi si kàddu yu oyof gars yi sëlmal talatuñ dara ñëw tiim amirul muminin ñëpp jaaxle kon kooku julli toll woon ko foofu bañ dóor ko paaka muufut waxut ñu dellu dolliwaat beneen mu door a wax ci la joxe ci la doge sukkuraan ñaari fan ba si ñetti fan door a génn jamono kon kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon roy Mawlana Seydi Sayin mii imaam Muhammadul Kabir bari laay roy imaam Muhammadul Kabir bari du faat waxtu du ko caaxaane imaam Muhammadul Kabir Seyna Cheikh Ahmed Tidiane la may roy mooy kilifaam mooy sëriñam moo ko jox lu mu amee Seydina Cheikh Ahmed Tidiane maamam yonent bi sallallahu alayhi wa lay roy. kooku du caaxaane farata du sun na kon loolu lañ amagum ba nga del siwaat incha allah wala lu ñu taay may mi ngi ko Massiré euh, euh, su ko defee dama lay bàyyi ak euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Touré laata rek ñuy daal di tëj ngir rek jàngat li nga xam ne mooy kaddu yu am solo yu xalifa bi daal di joxe su ko defee dama lay bàyyi ak sëñ Ibrahima Touré maam Siré Massiré nga daal di rek dem moom ci kaddu yi nga xam ne xalifa bu tedd bi daal dina ko yëkkati mu doon kaddu yu gàtt waaye itam kaddu yu ama am solo mu jàngale ci nag àddina. sant bu baax uh, di dellu di sant uh, mbooloo mi fi teew ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñooy topp uh, jamono ji ci Eye Africa TV di ñaanal xalifa bi rek yal na ko fi yàlla yàggal te wér comme li mu wax rek gàtta na waaye jàngale ne tamit fii lu am solo mooy comme li nga wax rek respect time ak euh, wax na tamit ne euh, jàmm yomb na waaye pour nga jëfee ko euh, moo jafe suñ ko jëfee rek nga gis ne jàmm dina mën a yomba su ko defee sëñ bi yow lan nga mën a jàngat si kàddu yu gàtt yi nga xam ne xalifa bi jaaral na fi. ah comme ni ñu laaj ci jotaay bi bi nga xam ne mooy jeex léegi ci seex bi nga xam ne mooy suñu xalifa de nit koo xam ne ku xam jamono la. waxoon naa ko ci gannaaw jàng bi yomb na ndax buñ delloo suñu bopp ci alquran yaakaar naa ne saar bi nga xam ne ku ko jàngul amuloo julli ci ràkk boo ko jàngul amuloo julli mooy fatiha am naa yaakaar ne walla lu wér la ne bokk na ci saari alquran yi gën gàtt ci alquran waaye bokk na ci saar yi nga xam ne aaya yi ci nekk baat yi yomb nañ pour mokkal ka yàlla manoon naa jël ay yi gën a maanaam saar yi gën a gudd ñu jullee ko waaye saar boobu la seppi ne képp ku ko jàng rek sa julli wér na donte jàngoo beneen beneen saar bu ci topp te saar bu gàtt la kon jotaay bu gàtt wala wax ju gàtt tekki wut ne wax ja matut wax ju mat naa sëkk te it war nañ ci jàngee lu bari nag ah sunu kilifa gi nga xam ne mooy fi nekkoon nga xam ne moom la ñëpp da Eh, xalaat ak demam ci ñi gàtt xam gis-gis te demut fenn mu ngi fi mooy Mawlana Si Alaaji Saayid danaan wax lu yàgg-yàgg danaan wax lu gudd waaye xëy na nit ñi ci seen bopp ñoo bokkut esprit ni ñu esprit xëy na moom mën na wax lu bari te la may wax yépp dana nekk loo xam ne eh, lola benn gaañ ci am waaye kii soo gisee mu gàttal ñaar rekk ko waral waxtu wi xat na tànc na ko benn ñaareel ba man pour man jàpp naa ne su gàttalee dellu ci kër ga fii dana baax dara du yàqu lépp dana jag te fa mu jëmit fa mu bàyyi gannaaw it am na doo koy xaar fafa it tabarakallaaw léppay rafet kon gàttal gi terewut mat na bi ci topp mooy jàngat bi njàng ci bi mu ko joxee kàddu nangul jël kàddu gi waaye da ko delloo euh, Cheikh Abdoulaye Bari ibnu Mawlana Cheikh Mamadou Kabir Bari muy koo xam ne ku dal la xam naa ko tuuti nag parce que nekk nañ Dakar man ak moom léeg-léeg an sax maa moom dañuy jékki-jékki rek mu ne ma kañ waxtaan ñu dugg ci nekk tëju maa moom kese bu danaku kenn nekk fa moom ñuy waxtaan li yàgg moom Cheikh Ablaye nit ku oyof la ku baax ku bëgg nit su ko joxee kàddu gi mu dellewaat ko kooku tamit jàngat na ñoom ñaar ñoo ko gis-gis ndax xam na ne Cheikh bi tëleewul wax ba ñu too wax waaye muy mën na ko waaye xam na li tax mu delloo ko am na xam na loolu moo waral moo tax ma ne la ñoom ñaar seen xalaat ànd na seen gis-gis ànd na man rafetlu naa ko bu baax a baax yaakaar naa ñu ko lu bari na lool fa tabaarakallaahu loolu lañ ci am jàngat bi ñu jàngat seex bi seex eh, mbay mahamud mbay eh, ñu delloo la kàddu waaye sayda jàngat bi ñu ci am daal mooy loolu fa tabaarakallaahu xam naa ñu xaar rek ba ngeen indil ñu beneen question insha allah tabaarakallaahu <laughs> léegi ma bàyyi la kàddu gi rek su ko defee euh, sëriñ Moustapha euh, si biir kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko mu ngi wax euh, noot suñu ay bëgg-bëgg xam nga kàddu gi ni ki nu ma la koy waxee doon na lu lu gàtt su suñuñ ko mën a déggee waaye itam dafa bari njariñ ndax lu mu gàtt gàtt ci biir wax ji mu ngi wax ne noot suñu ay bëgg-bëgg te yaa ngi xam gis ne bëgg-bëgg nit ki mu ngi yóbbu nit ki ci mu dem ba lor jàmbur bëgg-bëgg nit ki mu ngi yóbbu ci nit ki ba mu dem def loo xam ne ni diineem sant ko ko ba mu def sox loo xam ne askanam euh, doonul lu ñuy ndamoo tey jii moom sëriñ bi ci boppam ci lu kàddu gi gàtt gàtt dégg nga mu ne nañuy noot suñu ay bëgg-bëgg euh, les ko nga koy jàngatee alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah waa nu jàngatee ci kàddu yooyu mooy ne bañ a topp sa bëgg-bëgg doomu aadama topp bànneexu bakkanam dina ko yóbbee mu jël taayam bi nga xam ne am na ko ba jëlaale taayam bi keneen wa nafsuka tifli in taamilu shabba ala hubbi rida wa in taftimhu yanfatimi fashrif hawaha wa hasir antuwallihu innal hawa ma tawalla yusmi aw yusmi Mouhamadou Boucheri daf ne wa nafsu ka tifl mu ne bakkan dafa mel ni xale rek su fekkee ne feral nga dina fer waaye soo ko bàyyee mu continuer di namp rek mu ne da nga nga feral sa bakkan mooy ne bul topp sa bëgg-bëgg yi moo tax mu jàmbatoon di laajte man lii bi jimaahi min xawaayatiha kama yuraddu jimaa xaylu bi lujumi ana fan laay jëlee koo xam ne dina ma orienté dimbale ma ci suma bakkan bii ba du ma amu rek ma topp ay bànneexam ba may jël àqi jàmbur wala may jël temps yi jàmbur temps dafa cher toujours daf koy jàngale alkalifa daf dee wax ne waxtu dafa cher waxtu buñ ko dee foye xarab bi daf ne ah, al waxtu ka shayfi in lam taqtaawu qataaka waxtu maanaam comme jaasi la soo ko dogul ma mu dog la kon xel mu rëy la ko yàlla may gis nga nu xam-xam bi bëree noonu la xel mi ku mën a xam doomu aadama la waaye ku mën a xam lu doomu aadama yi soxla la te loolu yëpp dina fexe ba ak fasaaham li mu bëgg a wax mu wax ko mu jëriñ jaami yàlla yi te kenn du si jataay bi ndax xam ne ne màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi yëpp loolu moo leen fi isi bugut conférence bi lekk gàmmu gi te dañ na gàmmo te am na ay boromi xam-xam yu toog fii yoo xam ne ku si nekk tey war ngay génne loo xam ne ci yonent bi rëy na lool boo leen téyee nag ba time dem ba mu guddi reer yu guddi ni nga xamee ne noonu la ko mbayeen mbayeen yi bañee reer yu guddi ak ñeneen a ñeneen loolu da gis ne dina jël time yi gàmmu bi te am na ñoo xam ne programme nañ leen pour ne ñu war a ñëw waxtaan ak jaami yàlla yi ñoo ñooñu soo jëlee time bi rek am na leneen beneen loosis bu lay aar ci kanam moo tax ma ne xam-xam bi nu mu réyee noonu la xel mi réyee fa tabaarakallaahu ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko fee yàggal dolli ko wér dolli koy dëgëral te oyofal en bi xam-xam kenn werantewul ne am na ko moom kenn werantewu ko te yàlla dogal na ndaw la ñu baal ma ci kàddu googu imaama ali dafa doonoon koo xam ne ku fee dell la woon daf daan toog saaba yi wër ko mu ne leen zalloo nii xabla an yeen xule nii laaj leen ma balaa ma fay bàyyeekoo alquran aaya bu nekk xam naa ban taayam la wàcci guddi la wala bëccëg la guddi la wala bëccëg la tàngaay la wala jamono seddaay la ne laaj leen ma kon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noon ana madinatul ilm wa haliyun baabuha man maay néegu xam-xam waaye haliyun mooy buntu bi waaye loolu ñi jàngee ci ñun ñëpp ne maolana seydi saa tamit léeg-léeg dana am lu mu wax benn waay wax joo xam ne loolu royuwaay lay nekk xam naa loolu su ma ci bëgg a dugg dana xaw a yaatu tuuti am na ku màgg koo xam ne mu nga nele muy sëñ Pape Kayre góor gi neexoon na ko baabul xayri loolu doon loo xam ne lu rëy rëy la baabul xayri dafa ëmb lu yaatu loo xam ne daanaka lottu naa si man koy eh, leeral buntu boo xam ne bunti jàmm la buntu la boo xam ne bunti yiw la loolu ku ko ku ko góor gi wax daneen la bàyyiwaat xel ñeneen ak ñeneen noonu la leen waxee seedeel leen seen xam-xam te amul kenn koo xam ne gis nga si sa bopp wala foog nga ne àgg nga fenn fi ba tey yaa ngi jàpp rek ne mbote bu ndaw a ndaw a nga ci kanam ñëpp kon loolu góor gi loolu la yare yaree koy ñaanal yàlla yàlla yokku ngërmande ca moom waaye yàlla yokku njéggal ci moom xalifa bi mu fi bàyyi yàlla dolli koy aar aalaare réew mi aaraale tele bii nga xam ne lu baax lépp lu baax fum ko dégg rek fas yéene na adduna bi yëpp jot si rawatina ni joxe boppam kër gi te loolu yaakaar naa ne dellu dem kanam rek lañ ci gis te foog naa lañ ci gis lu néew a néew la lu ko ëpp mu ngi si kanam yàlla na yàlla def loolu te ñu fekkee ko di leen a ñaanal yéen ñëpp yàlla aar leen wattu leen xam naa ne nekkuma ci tàggoo waaye loolu damay profité boole xaale ko si ndax doomu aadama du mat ñu ngi lay sant di la gërëm ci laaj boobu di la xaar ba nga dem ci borom xam-xam la doyloo nañ ko bu baax a baax a baax te lépp lu may wax njëriñ lay doon Cheikh Mohamed Garmi ñun ñu tolluwaale foofu ci ay kàddu mbokk yéen gi bàyyi xel Eye Africa TV ni ki niñ leen ko waxee woon euh, noo ngi fii ci Banyanka euh, ci dëkk bu sell bi noo ngi fi nag euh, door programme bi depuis démb ba léegi ni lee noo ngi ci kawam ni ki niñ leen ko waxee woon nag bëgguñu dara ump leen wala dara rëcc leen ci li nga xam ne rek mooy fii xew ci gàmmuk ren gile rawatina nag yéen ñi nga xam ni amoon ngeen yéene lool teew fii nga xam ne mooy Banyanka ngir dundu gàmm gi waaye xëy na yàlla moo ko dogalul tax mënoo leen a ñëw TV ne leen euh, bu leen euh, daal di jaaxle ndax dinañ leen wan lépp loo xam ne mu ngi fi xew Massiré euh, ci rek bu ñu bu ñu bu ñu tënkee maanaam limu kii bi xëy na rëcc nañu waaye lu mu néew néew lu toll ci euh, juróom euh, ñetti fukki kaamil ak ñeent jàng nañ ko ci lu ñu xam ne takk nañ ko ëpp na loolu nag waaye loo xam ne man euh, takk naa ko maanaam lu tollu ci eighty four kaamil yoo xam ne wàcc nañ ko muy rek alxuraan nga gis ne dëkk bi mu doon dëkk boo xam ne ñu fonk alxuraan la waaye itam ci ay taalu taalibe yu fi jugee fonk ay alxuraan ndax boo xoolee tamit tudd nañ fi tamit ay salaatul alal nabi yu bëree bëri yoo xam ne lim bi takku na lool lool Euh, tey ba tey mu lay jàngalaat euh, li nga xam ne mooy euh, Baye Saxiid lu mu fi nàmpatal ci askanam ci ay taalibeem ci njabootu boppam ak ci fépp fu ko rek waaye mën a bàyyi ko tey gis nga tey bi ñuy door waxtaan wi ki nga xam ne moo yor mbir moomu daal di lim li nga xam ne mooy ci ay kaamil yoo xam ne jot nañu ko wàcce fii ci wàllu arxuraan muy wan rek bëgg-bëgg bi nga xamee ni sëriñ bi bëgg na ko arxuraan fonk na ko arxuraan waaye tamit taawam bi nga xamee ni tey jii mooy xalifaam fii di ko toog ci toogu bi nag mu fees ko del Euh, di rek ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Basir moom itam nu mu bëggee rek alxuraan su ko defee dama bëgg nga dem ak euh, Serigne Ibrahima ci wàllu woowu nu ñu nu kër gi fonkee alxuraan masira waxee ni mu fonkee alxuraan ba tax na loolu la nampal ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem ndik yi jàngalul yëpp nekkuñ ne ñi nekk fi nii rek la si Banyanka dafa wër si àdduna bi euh, du na ay dëkk yu nga xam ne ñooñu foofu lañ toog di jàng seeni alxuraan loolu yëpp pour bëgg a alxuraan bi nga xam ne euh, bëgg nañ ko te mu nampat leen si si loolu euh, sëñ bi lan nga ñu mën a wax ci yooyu. tabaarakallaahu suñ dellusiwaatee ci li ñuy laaj ci alxuraan ki nga xam ne mooy sunu sëriñ ah yal na yàlla yokk dalam fa mu nekk gis nga alquran pour nga jàngat góor gi bëgg alquranam yomb na ndax nañ dugg ci kaset euh, yi mu fi bàyyi mënul wax juróomi minute yu mat te indil alquran bu leer boo xam ne bu ko jàngee yax bi ni mu koy waxee maanaam jàng alquran ni mu koy waxee kàddu gi baat yi da nga xam ne kii li ma wax lu mu xam la lu maîtriser la lu mu yàgg di gëstu la ba ca topp mooy bu koy jàng di la ko wax ci kàllaam bi nga dégg ci olof ya maanaam da ko firi ci loxo bi nga xam ne moom nga nàmp yow ni mu la koy firile ci jamono amut fenn foo koy dégg ci àdduna bi ñu koy firee noonu te mënoo ci génne virgule ci li mu lay wax li loo xam ne nii nga ne li nekkut amul ba ca topp mooy bu fekkee ne min nga yàq mbindam alxuraanam maanaam min nga yàq euh, euh, loxoom bu bindee soo yàgga xool mbindam foo ko mën a fekk ku ko mën a xamee ak ku mën a dox da xam ne mbindam góor gi la ci ni muy bind xurufi alquran ci ngay xam ne mbind maanaam boo ko miinee danga xam ne kii ko bëgg alquran la ci xurufi ni mu koy bindee ndax nit lu mu bëggul du ko jox temps te li nga jox temps jox ko sa kàddu ba boo boo ci àddoo làmmiñ bi ñu xam ne miin na alquran sa loxo bi nga jox ko ba nga xam ne boo bindee al nañ xam ne yow mii miin nga ci loxo bee koy wane. loolu lu jafe la ci nit ñi da nga gis ko xam ne day man alquran wala ñu ne borom xam-xam la waaye su bindee doo xam ne borom xam-xam la parce que mbind mi du ko wane. am na koo xam ne xam na xam-xam waaye kàddu gi mën da wane xam-xam bi ndax laam bi laamiñ bi tàmmut ko di ko di ko wax moom nag waxam lépp xam-xam loon woon xam-xamam lépp ci alquran la ko tegoon. alquran piir nag alquran dafa am yoo xam ne dañu ko daan tere sax danaan wax ne moytu leen di jàng alquran ndax alquran dafa am niveau boo xam ne boo ci eggul jarul di miin di jàng. mu jox exemple daa joxe misaal ne su fekkee yaa ngi jàng alxuraan te maîtrise woo ko dana la waral nga indi la ñàkk ba ku la gis yërëm la ndax jànkal alxuraan boo xam ne foo ko fekk mu ma ci gannaaw daa xotteeku lu bëri lu mu daan wax la kon alxuraan ñu ngi ñu doon wax ne ñu mu ngi ñu doon wan ne fonk leen ko ba nga xam ne seen ko jàngee mu mën leen a jëriñ ci fahmu bi ci dégg gi waaye mu mën leen na jëriñ ci li nga xam ne mooy sa jëmm nga mën ci jëriñu mën a am leer waaye nga mën a am li xam ne mooy wërsëg wu yaatu ndax ni mu mën a joxee leer noonu la mën a joxe ak lëndëm lim na mën a joxe ak euh, wasak noonu la mën a tëje parce que boo ko ak àqam mu delloo la foo xam ne bëgguloo ko ndax alxuraan bàyyiwul lenn Firawna bokk na ci ñi gënoon a kàccoor ci àdduna bi alxuraan tudd na yoon yu bari su fekkoon ne seexlu na dara du tudd Firawna waaye alxuraan seexluwut lenn xamul lenn loo xam ne seexlu na ko ndax lu ñëw mën na koo setal waaye amul lenn loo xam ne mën na koo tilimal lu waaye lu nit mën a mel boo ñëwee mu setal la. kon moom noonu la dundee alquran ci bëgg gim ko bëggoon ci fonk gim ko fonkoon ba taxu na be bokk na ci mu mujj kàddu ñu mujj dégg ci moom su ñëwaan fi ñaareel waxam lu ci bëri alquran la ba ci xale yi jàng alquran maanaam ci kër gi da nga xam ne kii mi nga bàyyi xel xale yi jàng ndax benn bis toog nañ sax ci ci plan bi muy toog ñun ndekk na ñoo wax ak ñoom yëpp xelam maa ci xale yi jàng ci ci ci euh, place Cheikh Mouhamadou Kabir Cheikh Cheikh euh, Cheikh Basir ci ruq boobu noonu oustaz oustaz mu ngi fa ne jàngal xale yi waaye ndeke li mu toog ñun di wax yëpp kalmaa ngi ci xale yi mu jékki am kàddu gu mu wax jëmale ko ci daara ja ndeke moom ni mu wax ak ñun yëpp nopp yëpp mu ngi ko joxoon daara ja kon alquran ñoroon na ko lool bu buy wax ak yow bu dégg ku jàng alquran mi ngay bàyyi xel kii jàng lu mu sori sori mu ngi koy bàyyi xel loolu ko fonkul alquran doo ko def loolu gis nañ ko ci moom kon mën nañu wax ne ko bëggoon alquran la fa tabarakallahu ñu delloo la kàddu gi sayda ngoog bi ngoog ma xam naa ñoo euh, ngi ñëw waaj a jeexal waaye laata ñu jeexal dañ bëgg comme li nga laaj ci sëriñ Ibrahima rek ñu laajaat ko sëñ Moustapha xam naa ñu daal di koy tëjee ba ci kanam euh, mooy euh, sëñ bi ak arxuraan waaye rawatina nag ki mu fi bàyyi ak arxuraan ndax gis nga siiwal nañ fi ne jàng nañ arxuraan yu bari du rek ci kër gi waaye ci yeneen ñu nga xam ne ci daayira bi la ñu bokk ay muxadam yoo xam ne jàng nañ fu nekk ci àdduna bi ay arxuraan jagleel ko guddi gi nga ne moom la ñu jagleel yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa nga gis sëriñ bi nu mu fonke woon arxuraan di ko firi ci prix mu amul fen di ko firi ci prix moo xam ne ñëpp ñoo koy dégg te ñëpp ñooy xam ñoo koy daal di xam sëñ bi amoon na benn euh, spécialité boo xam ne jag euh, loolu suñu borom moo ko jagle jagleeloon maanaam euh, sëñ bi daan na defar nit nit ki di man di wax ci alxuraan te sax jàngul alxuraan gis nañ ko ci ay yu bari nekkul lu ñuy wax waaye lu ñu lu ñu gis la am ay nit ñoo xam ne ci kër gi la ñu bokk ay taalibi sëriñ bi la jëflante ak sëriñ bi sëriñ bi jaar ak ñoom foo xam ne dañuy wax di mën a wax ci alxuraan te sax xëy na seen alwa taxu ko uh, demee noonu loolu yëpp wan la sëriñ bi fonk gi mu uh, fonkoon alxuraan mu doonoon xaritam tey ji balaa ñuy tëj uh, jataay bi lan nga ñu mën a wax ci sëriñ bi ak alxuraan waaye itam xalifa bi nga xam ne moo fi toog muy Cheikh Basir ak alxuraan ndax balaa ma lay jox ci rek weeru koor bi daan nañu ñëw ji jël si ay tafsiram di ko teg ci télé bi gis itam ni mu ko daan piree moom itam moom mi nga xam ne mooy Cheikh Basir bay ñu ngi lay waxaat jërëjëf beneen yoon ci laaj bu am solo boobu alquranul karim yàlla daf ko wàccee si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam leent yàlla muhammad amee woon jox na ko sëtam bi mooy maolana cheikh na tijaani yi kooku jox na ko maolana cheikh mouhamadul kabir bari maolana cheikh mouhamad kabir bari jël na yépp jébbal ko maolana seydi saïd gis nga boo xoolee ci boor bi daara ji lam fa dugal ci alel wuuti ay ustaas yoo xam ne ñu xereñ leen ci alquran di leen taxaw guddi di leen taxaw cëg ba ustaas bi nga xam ne mooy jàngale alquran mu ekkati doomam may ko kon xam nga ne kooku fonk na alquran yéen bo eh, naka la eh, Maulana Seydi Saïd radiyallahu anhu dafa fonk alquran boole kook taxaw ba xale yu ndaw di jàng alquran ci riwaaya yoo xam ne fa tabaarakallaahu mën nañoo toog di jàng alquran adduna bi yëpp di leen seetaan te kenn du leen xeeb kër gi xale bu gën a tuuti mën naa toog jàng alquran te kenn du leen xeeb si alquran Maulana Seydi Saïd boole kooku yar boo xam ne pour rek bul xam benn problème ci alquran gis nga alquran sang bi wax na ko su fekkee ne da koy jëfandikoo wala nga koy jàng te na nga war a mel li alquran digle ak li mu tere. jéemu la ci dara daf lay delloo gannaaw waaye du la yóbbu kanam góor gi daf ñu daan jàngal ne alquran nee na rubba qaari ul quran wa quran yi yalaanahu am na koo xam ne mu ngay jàng alquran te alquran a ngi koy rëbbu ñu ne kooku mooy kan mu ne ki nga xam ne dañ ko jàngal waaye yaruñ ko jàngal nañ ko yaruñ ko alquran xaayee na wax ci nit lu ñaaw yow nga gàddu sa làmmañ wi di xas ay góor yàlla yoo xam ne yàlla tànn na leen ba pare jubóog ñoom alquran mu ngi lay rëbbu alquran jàng nga ko dem di njaaloo te alquran xaaye na la ko te jàng nga ko ci biir alquran alquran mu ngi lay rëbbu alquran wax na ne ku sàcc nañ dagg sa loxo nga jàng ko ba pare dem de sàcc alquran dagg na sa loxo bi te yëguloo ko léegi loolu Maulana Seydi Saïd jàngal nañu ko de dellu ci taxawaat temm képp ku jaar si ronam boo jàngee alquran di nga ko te di nga barke di nga jub ci kàttanu sun borom subhanahu wa taala ndax kan moom moo ca saar ba huwa allazi baasa fil ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayat wa yusakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma in kaanu min qablin la fi dalalin mubin mu ne huwa allazi borom bi subhanahu wa taala ne maa yónni si yéen yonantu boo xam ne baasa fiikum rasula maa leen yónni yonentu boo xam ci yéen la bokk yatlu alayhim ay ay kéemtaan dafa dafa dafa mel ni dafa xaw a kii waaw su ko rek dama lay euh, baal ma jox la nga daal di tëj euh, su ko defee nañ daal di nga xam ne damoo di waxtaan waa kay jërëjëf Mbaye huwa allazi baasa fil ummiyina rasula ah jërëjëf. ñu daal di euh, dem euh, ñu daal rek yemal ni fii euh, li nga xam ne moo di waxtaan wi ma dama lay bàyyi rek su ko defee nga daal di tëj dinañ da dinañ daal di. dafa mel ni dañu xaw a am jafe-jafe tuuti ci waaw mi ngoog mi ngoog ñëwaat na ma su ko defee ma bàyyi sëñ Moustapha nga daal di wéyal laata rek ñu daal di tëj li nga xam ne euh, moo di euh, jataay bi tey nañ fi dellusiwaat ndax tey dañ fas yéene rek lépp loo xam ne euh, mi ngi rek daal di xew ci biir fii di Banyanka bu mu rekk daal di ump kenn su ko defee yaa ngi woon ci fu am solo waaye rek nga daal di tëj foofu rek ñu daal di wéyal. Hmm. waaw jërëjëf Mohamed xam naa ne dañooy ñëw daaneel suñu kàddu Maulana Seydi Saïd alquran moo ñëw doora a wax moo ñu wax wala boog moo door wax lim doon moom moo ñu xamal kan lan mooy alquran huwa allazi baasa fi l ummiyina minhum yatlu alayhim ayat wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma in kaanu min qablin la fi dalalin mubin borom bi subhanahu wa ne yónni naa ci yéen ab yonantu boo xam ne ci yéen la bokk waaye ummi la koo xam ne dina leen sellalal dina leen jàngal ayaat yi wa yuallimuhumul kitaaba yatlu alayhimul ayaat dana leen jàngal ayaat yi ñu ne mu ne ñu alquran wala arab léeg-léeg bu yéemoo ci dara daf naan wallahi la ayatun min ayatillah lii de kéemtaan la si kéemaani yàlla yi yatlu alayhim gis nga kéemtaan yooyu alquran def noon ñi sa nurihim fi ayatina sa nurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq mu ne danaa leen wan seeni kéemtaan kéemtaan yoo xam ne dinaa leen ko wan si seen jëmm yi wan leen ko ci goox yi ba ngeen xam ne lépp lu yàlla wàcce rek loolu mooy nekk li nga xam ne mooy dëgg mu ne ñu ayaat boobu kéemtaan la wayu sakihim dina leen sellal yar leen yar bu rafet wa yuallimuhumul kitaaba ñu xamal leen alquran muy téere bii wal hikmata ñu sol si seen leeri hikma muy haqiqatul muhammadiya ñetti waaw mu ne ñetti waaw moo fa nekk ñetti waawun yooyu waaw bu nekk six la six times three loolu eighteen la mu ne eighteen boobu mooy hayyu hayyu lépp luy dund ci lay dundee mooy leeru haqiqatul muhammadiya kër goo xam ne am nga ko daara joo mos a samp daara jooju du tas du fay kër yi mag ñi nga xam ne amoon nañ ko mooy kër maam borom Touba kër maam Baye Niass kër maam um, Alaaji Malick leeru yonentu boobu lañu amoon moo tax ba léegi seen kër yooyu tasul ak yeneen i kër waaye kër gii li yàlla joxoon maam borom Touba yàlla jox ko maam Alaaji Malick yàlla joxoon ko maam Baye Niass loolu la borom bi subhaanahu wa laa jox Cheikh Mouhamadul Kabir loolu la Maulana Cheikh Mouhamadul Kabir jox Maulana Seydi Saïd moo tax moo ñëw door ñee wax alquran mooy lan euh, xam la na ko de moo tax wax nga ko si sa biir wax ñi koy déglu piir te jànguñu sax loo bëgg a wax si alquran sooy tàmbali ñoom ñu mottali ko ndax dégg-dégg yéen ci am te góor gee leen ko jàngal kon ñu ngi sant di gërëm euh, euh, time amul ñu delloo maay bi incha allah. jërëjëf jërëjëf maa su ko defee rek léegi dañuy euh, daal di rek tëj. Euh, ba ci ba ci kanam ndax dinañ fi dellusiwaat amaat nañ yeneen euh, plateforme euh, yoo xam ne dinañ ko fi am fii lépp rek ñeel gàmmu gi daañu fi dajalewaat borom xam-xam yu bëri waaye itam luy xew ci biir gàmmu gi yëpp ci biir tante bi ñoom Ibrahima Kebe sigar yu neex yi nga xam ne ci kanam dina fi jib ak itam sëriñ bi ci boppam daa fi teewaat yëkkatiwaat fii ay kaddu ak it yeneen i muxadam yeneen i waram xam-xam incha allah lépp daal dara du leen ump ci gàmmuk ren gile Eye Africa TV namm na leen a wan lépp lépp lépp incha allah waaye itam namm leen cee defal liggéey bu ama am solo euh, ci fii nga xam ne mooy Banyanka euh, ci bis bu euh, sell bi su ko defee ma ma bàyyi la rek nga daal di tàggoo laata rek ñuy daal di tëj Ah, jërëjëf Garmi maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne tamit ñu ngi doon ànd ak ñun tey eh, fii ci baañaaka ñu ngi leen di eh, wax ne rek di leen ndokkeel ah, si bés bi waaye di ndokkeel tamit bépp kilifa bu nga xam ne teew na fi tey ah, ñu ngi lay bu baax a baax di jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoom lañ amoon tey si plateforme bi pour waxtaan ak ñoom comme ni nga ko waxee rek dinañ jël si waat nu guddi guddi gi gën a waaw <laughs> affaire di gën a ala me su ko defee rek di leen wax ne rek stay tuned ñun la ak yéen ba ba fajar incha allah ñu ko ni ki ni ko gars di waxee rek euh, sama sëriñ Baye Saxit boo ko meree du la mere boo ko soree euh, du la sori te boo soxlaa mu jox la kooku mooy Baye Saxit bokk yi ci kanam euh, dinañ fi dellusiwaat jërë ngeen jëf ba ci kanam jaageen ci